wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddiini amma baad mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dinaa bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala di julleent bi alayhi salaam mu ngi leen di nuyu ginnaaw bu ñu jégguloo yàlla di leen jéggulu ci yéex a tàmbali ji ñaan yàlla yàlla ñu boole jéggal waxtu wi nag xaw nañoo dagg moo tax dañuy dugg rek ci li ñu tax a daje incha allah programme bi ni ñu fas yéenee mu tëddee ko dinañu jox kàddu kii wax ci turu mbooloo mi organiser jotaay bi su kàddu boobu paree ñun ñu jiite waxtaan wi dinañu jël kàddu ñetteel bi ñu jox waxtaankat bi. mu demul ñu ci li ñu fi tax a daje ñeenteel bi ñu dem ci laaj yi ngir gagné temps nag dañuy tax ci mbooloo mi képp xam ne am nga laaj nga bind ko buñ ci tolloo ñu la ko jox ko mbokk yi kon ku am laaj du micro bi lañ jox mais dañ koy bind nga yónnee ko ñu tontu la su loolu jeexee ñu jox kàddu ki nga xam ne insha allah moo jiite mbooloo mi nga xam ni moom moo saxu la ginnaaw ñu jiite loolu dinañ jox kàddu ki fi teewal imaam yi ak association yi ñu jox ko bu ñu jeexee ci loolu nag ñu jox kàddu ki nga xam ni moom moo jiite mbooloo su ko defee waxtaan bi kat yi jotaay bi jeex ci li ñu ko tëralee nag bëggoon nañu bu ñuy dem julli tisbaar fekk lépp jeex loolu yàlla ci yàlla dimbali. kon incha allah ñu ngi ko kàddu gi ki nga xam ne mooy wax suñu mbooloo mi ñu koy wax euh, Seydou Omar Thioub. الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على عبده الكريم نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين mbokk julli di ñu ngi leen di jéggalu ci tardement bi ñu ngi leen di jéggalu ci tardement bi xam naa ne sunu kàddu dina gàtt lool jubluwaay bi génn lu dul wax jubluwaayu mbooloo mi nga xam ne ñoo organisé nii te organisé mu xaw a mel ni lii mbooloo mi seen jubluwaay weesuwut dimbalante ci lu mbaax akrabu suñu borom subhanahu wa taala comme ni ko yàlla wax wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ñaareel bi mooy jéem a dox ci njàngale quran ak sunna ci li ñu man ñetteel bi mooy jàng ak jàngale ak liggéey loolu mooy seen seen doxin ñeenteel bi mooy ci njàngale moomu ak njàngale mi ak njàng mi fexeel ba taxawal ay duruus ci biir dëkk bi daanaka seen liggéey foofu la gën a jëm yenn ci duruus ya dellu ci darsu alquran boo xamante ne dañ koy mokkal bu ànd ak tafsir boo xam ne dañuy mokkal saa suñu àggee ci <coughs> taxaw ñu bokk ci dars bi yépp tari ko ñu firi ko jàng dars boobu ñu wéy am na ñuy jëlee di duruus lu jëm ci wàllu aqida ak fiq ak wàllu suluk ak ustaas Mbay Sey am na ci benn boo xam ne moo ñu ci taxaw yàlla la fay ko loolu kon ci la jël ak cant boo xamante ne bu amul fu mu yem la jubale ko ci ñi nga xam ne ñooñu ubbi seen jàpp dañ mën faa taxawal duruus yooyu ndax bari na ci biir dëkk bi ay jàpp yoo xam ni ubbil nañu seeni buntu suñuy ndaw nekk fa di fa ay bind moo xam darsu alquran la moo xam darsu aqida la moo xam darsu fiq la yooyu am na ci biir dëkk bi ñooñu ngi leen sant bu baax a baax ci yaatal bi waaye it nag ñu ngi woo mbooleen koo xam ne loolu doon na sa yitte mooy sa koñu wala sa jàkka gis nga ni soxla woon nañ ay bind yu ñu fay joxe moo xam loo jàpp ne moom lañ gën a soxla nga jox ko ak mbokk yi incha allah daan defee ay yitte ngir maanaam mën faa taxawal ak bind boo xam ne moo xam ci osboo lay doon moo xam weer ngeen ko bëggee moo xam lu ngeen ko bëggee insha allah suñu jokkoo dañ ci jéem a jàpp nañ ci lu ñu mën kon daal ala kulli xaal mbooloo mi mbooloo mënul di jéem a góorgóorlu ci alquran ak sunna waaye di goor a lu ci jàng ak jàngale ci loolu ci lañ gën xam mooy seen chaan maanaam loolu la ñu xam mooy jàng ak jàngale ak liggéey kon daal mënees na ko tudde jamaatul islah wal amal jéem a yéwéna li ñu mën te yéwéna mu ngi tàmbalee ci jàngale a nag ñaq liggéey parce que yéen te bañ a xaar njëriñ yu jóge feneen bëgg nañ ko nag waaye dañ ku ñu ñëwee dañ koy fekk ci yoon kon ala kulli xaal loolu lañ doon jotal ci waxtu gàtt wi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi ginnaaw kàddu yooyu ne eh, li ñu tax a dajee mooy jàngataat benn tomb ci suñu diine comme ni ko defee woon dëgg ne fii daaw di sant yàlla moom mi ñu mayoon ñu fekki woon daaw ba yàlla ñu fekkee na di ñaan yàlla yàlla ñu may ñu fekk déwén ak ay déwén yu bari ñu daje fi ngir ma ni jàngataat benn tomb ci diine ji mu tënk ko ci at-tahaddiyat al-mu'asira wa mawqif al-muslim minha muy position du musulman aux défis contemporains mooy lan mooy taxawaayu jullit ci samp yi nga xam ni jamonoy tey moo ko ko indi loolu mooy tomb waxtaan yi incha allah dina leer ci tomb bi lu tax ñu tànn ko ndax ñun ñëpp xam nañu ni li nekk ci suñu kanam ci jafeñ-jafeñ ak i tolof tolof mu nekk ay jafeñ-jafeñ yu yu tëb ngir yàgg bu mu fi yàgg ak doole bu mu am ak ña suuxat ak di ko toppatoo yitte bi ñu am ci jafeñ-jafeñ yooyu le ak tolof tolof yooyu yàgg fi ba tax mu nekk ay difi maanaam mu nekk ay samp yoo xam ne nag suñuy moroomi nit ñoo fexe ba samp yooyu nekk bi kon ñun en tant que ay jullit bu ñu simpi samp yooyu la yitteelee war nañoo am taxawaay taxawaay boobu nag ci kanamu samp yooyu nga xam ne jamono moo ñu ko indil moom la ñu bëgg a waxtaane mu am ku ñu yaakaar ci moom ni bu ñu ko ko joxee ñu ciy séentu bëgg ko ci dinañ ci defal lenn lu ñu ci fajal suñuy aajo muy docteur Mouhammad Ahmad Lo yaakaar naa di ko présenté ci Sénégal wala ñu koy présenté mbooloo mi nga xam ne ñoo toog ci suñu kanam euh, maanaam jeexal suñu waxtu lay doon waaye ñu wax rek nii ab jàngalekat la waaye ab wootekat la waaye ab imaam la ci benn baat ab mujahid la ci yoonu yooyu waxuñu ko ngir tagg ko waaye dañ ko wax ngir loolu lañu ci moom te yéen ñi ko xam it ñëpp xam ngeen ni baat yooyu ñu ko jagleel ñu ngi ci moom ab jàngalekat la ab wootekat la ab imaam la ci benn baat ab mujahid la te itam miin na téere bi samp yooyu yu ko yitteel la ñu woo ko nag ngir bëgg ci moom mu defal ñu ci ay waxtaan ubbil ñu ci ay bunt ba kenn ku nekk jàngat samp yooyu xam ko waaye kenn ku nekk xam lan moo war a nekk sa taxawaay fi kanamu samp yooyu le ngir ñu def ko programme boo xam ne bu ñu fi dajewaatee déwén yàlla na ko yàlla def kenn ku nekk ci yëg ni samp yooyu am na loo ci def am na taxawaay boo ci am kon loolu moom mooy li ñu fi tax a daje kon ñu jox kàddu gi docteur Oustaz Ahmad Lo di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq ba yaakaar bi ñu am ci moom yàlla mottali ko Oustaz tafaddal mashkuran mahjura bismillah rahmaani rahim bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim d'accord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 mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di amaat mbégte ci siwaat ci jotaay bii nga xam ne dañu fi daje ak ay mbokk yoo xam ne sunuy mbokki jullit lañ di fàttalikonteeg ñoom ci li nu bokk muy suñ diine tomb bi nag nen ko dégge jërul guddal mooy défi yi nga xam ne dafa am ci yoonu ki dox jëm ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa muy ay pakk yoo xam ne day nekk ci yoon woow yi mën a téqatal nit mën koo gàllankoor mën a dox digganteem ak fam jëm ak ban taxawaay la jullit bi war a am xëy na baatu muasira bi sax muy contemporain bi nga xam ne moom lañ ko melale am na ci maanaa waaye buñ duggee ba ci biir dëgg nag danañ gis ne daanaka pakk bu bees bu ñuy sampaat ci jamono ji te fekk sampee su ko woon ca la weesu day mel ni amut dañuy beesalaat rekk ak di soppi anam yi waaye jafe-jafe ya amoon démb ak yi am tey moom daanaka ak soppiku gu rëy amu ci waxtaan wi nag bëgg nañ koo tënk ci ñeenti tomb rek ba ca jëkk muqaddimaatun wa qawaid am na daal ay règle yoo xam ne bëgg nañ ñu jaar ci door a dugg ci biir waxtaan bi ñaareel ba taarifu taxaddiyaat définir lan mooy liñ jublu ci patt yooyu ñetteel ba anwaau taxaddiyaat façon yi nga xam ne pakk yooyu moom la am maanaam ay xeetam ñeenteel ba nag nekk mawqif al muslim min al taxaddiyaat taxawaay bi jullit bi war a am nag ci défi yooyu nga xam ne ñoo ne ci kanamam kon ñu tàmbalee rek ci bu njëkk bi <coughs> am na ay régal yoo xam ne ci biir alquran ak sunna ak ci déggiinu lislaam ci la nekk jullit buy dund ci jamono ju nekk rawatina sum jamono jii war nga koo làmbaayoo foo toll fu nekk mu nekk fa ak yow ba ca jëkk moo di ann allaha yabtali l abda wal ummata li xikam sunu boroom tabaraka wa taala day nattu ab jaam ci boppam kenn ku ne waaye léeg-léeg mu nattu xeet bi waaye su koy def nag xikma mooy tax daa am lu tax suñ ca doon joxe ay misaal ci xikam yooyu danañ gis ne nattu bokk na ci liy jegeel jaam bi boroomam maanaam teg ko nattu bokk na ci li koy jegeel boroomam maanaam li koy jegeel mu am ngërëmam ndax nattu bi su ñëwee rek jaam bi dana fàttaliku boroomam dana bari lu muy ñaan boroomam wéet ak moom tàllal ay loxoom yëg ne moom bindeef la yëg ni dafa am ku ko bind yëg ne ay mbiram daa am ku nekk ci loxoom kon yooyu maanaa su demee bay raaf ci xol li koy delloosiwaat ba nit ko fàttaliku boroomam donte luy metti la waaye fekk na lu koy jegeel boroomam la moo tax boroom bi daf ne wa ida anamna ala al insani arada wa naa bi janibi wa ida massahu durru fa du duain arid nee na jaam bi maanaam nit su fekkee ne daal dañoo sotti ci moom xéewal yi muy sotti ku rek day dem ba mu yàgg mu fàtte yàlla waaye ne nag wa ida massahu charru su fekkee ne nag lu metti dafa tege ci kawam fa du duain arid nee na day daal di tàmbali ñaan nag ñaan yu yaatoo yaato yaatu guddeeg bëccëg ak ci lu nëbboog lu feeñ lépp xelam day dellu ci boroomam kon kooku ci li jege jaam bi sunu borom tabaraka wa taala di ko fàttali yàlla moo tax wax waxkat ba daf ne wala qad dakartuka walxutuubu kawaalixu suudun wa wajhu dahri acbaru qaatimu fa hataftu fi lasxaari bismika saarixan fa ida muxaya kulli fajrin baasimu nee na dama tudd yàlla fàttaliku yàlla ci jamono joo xam ne mbir yi jafe na lool ba jéggi dayo waaye nee na ma jekki ba njël ma yëkkati sama kàddu sama digganteeg sama boroom tàllal samay loxo jooy ci kanamam ci mbetteel rek lépp lu lëndëmoon jékki-jékki leer kon metit yooyu day fàttali jaam bi boroomam bokk na ci xekkam yooyu moo di ne alibtilaau masnaun yustaxraju minhu uzamaau rijaal nattu dafa mel ne day usine boo xam ne gaa yi yàlla yu baax yi foofa lañ leen di liggéey fa lañ leen di toggee ñu génnaat dafa mel ni wurus wurus bu amee yu tagu ci yu teg ci kawam ak ay matières yu ci bokkul wala ay yoo xam ne bokkuñu ci oor bi ngir ñu génne loola ci sa war a lañ koy dugal bu tàngee rek lu ca bokkul day génn dem wurus kese des fa loolu bokk na ci xikam yi mooy nit ki dañ koy raxas ba mu set wecc lépp lu nekkoon ci moom te lu bokkul ci mbaax mu jóge ci moom moo tax waxkat ba day wax ba tey ne mu ne wax ida huwa adra bika alxutubu wa allab fama ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab nee na muñal su fekkee mbir yi metti na ba tàng te xam ne natt moom bu dikkee gàcce waru ca ndax kat wurus wi jamono yiñ ko dugalee ci biir di walbati loola amu ca gàcce waaye su ca jógee rek day set kon yëkkati darajey nit ki ak defar ko ba mu baax bokk na ci jumtuwaay yi sunu borom tabaraka wa di ko jëfe di jëfandikoo léeg-léeg mooy natt bokk na ci ba tey ann fiihi takfiran lildunubi walsayiati wa rafan lildarajat natt bokk na ci liy far bàkkaar bokk na ci liy yëkkati daraja itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari nee na man yuridi llahu bihi xayran yusib minhu man yuridi llahu bihi xayran yusib minhu koo xam ne yàlla namm na ci yow aw yiw nee leeg léeg mu teg la musiba léeg-léeg mu teg la loo xam ne da nga ni lii lu metti la waaye fekk na booba da lay defar mu waxaat moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu wér mu ne maa yazaalu albalaau bilabdi xatta yamshiya ala al ardi wa ma alayhi xatia nee na balaa du dañ di wàcc ci jaam bi ba mu àgg ci di dox ci kaw suuf si te fekk benn bàkkaar nekkatul ci kawam maanaam fekk bàkkaar yépp faral nañ ko ko ba mu far ba tey bokk na ci xëkkam yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koy jëfandikoo ci nattu ab jaamam wala mu nattu aw xeet moo di ann libtilaa alzawaajir tasuuqu l ummata liltawbati warrujuci ila allah alibtilaa zawaajiru tasuuqu l ummata liltawbati warrujuci ila allah nattu ci boppam luy jàjj nit ki la di ko delloo ci yàlla dafa mel ne lu ñu doon sàmm mu nangi faaw a génn saawaga ni jajj ko delloo si ko waat mu jaaraat ci yoon bi kon nattu dana wàcc ci nit fekk dafa nekkoon ci njaaxum mu jubbanti ko mu del si waat jub waaye dana wàcc ci aw xeet itam ngir delloo si waat leen ci yàlla moo ta suñu borom tabaraka wa taala daf ne ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون mu ne yàq feeñ na ci asamaan si ak ci suuf si maanaam ci géej gi ak ci jaww ji sooy boo boole ci asamaan si nee lu waral yàqute googu ak mbon googu mu ne bi ma kasabat ay dinnaas ci loo xam ne nit ñi ñoo ko fàggu ci seeni loxo ngir sunu borom tabaraka wa taala mosal leen maanaam mu teg ci seen kaw lenn ci li nga xam ne moom lañ doon jëf faye leen ko laallahum yarjiun ngir ñu mën a dellu ci seen borom tabaraka wa taala suñu borom tabaraka wa taala waxaat ne wala nudiqannahum min aladabi al adna duna aladabi al akbari laallahum yarjiun nee na danañ leen mosal métitu fii ci àdduna woo xam ne dana jiitu métitu ëllëg wa lu tax lu tax métitu àdduna wi di am ñu koy teg balaa di ko teg metit nee na laallahum yarjiun ngir ñu mën a dellusiwaat jaar ci yoon wi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom la leen sant ñu jaar ca kooku mooy régal bi moo di sunu borom tabaraka wa taala dana nattu jaamam bi waaye dana dem ba mu yàgg mu nattu aw xeet fekk booba defar leen ak bëgg leen moo tax mu teg leen nattu ñaareelu qaayida bi muy ñaareelu régal bi ann mihana binnisbati lil mumini assaabiri tanqalibu ila minax nattu su tegee ci kaw jaamu yàlla bi mu muñ ko day mujj soppi ku xéewal ci xaqam moom abdurahman ibnu abi layla moo jële ci suhayb radiallahu taala anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis boo xam ne rawahu muslim mu ne ajaban li amril mumin yonente bi alayhi salaatu mooy wax mu ne yéemu na ci mbirum ki gëm yàlla inna amrahu kullahu xayr mbiram daal lépp lu baax la mbiram daal lépp jàmm la wa laysa daaka li ahadin illa loolu nag kenn amu ko ku ku gëm yàlla ku gëm yàlla dong moom moo mën a am loo in asaabathu sarraau shakara fa kaana xayran lah su fekkee ne mbégte moo ñëw ci kawam mu sant yàlla loolu wëlbati ko soppi ku jàmmi kese ak aw yiw in asaabathu darraau sabara fa kaana xayran lah su fekkee ne lor moo wàcc ci kawam bakkanam wala alalam wala njabootam wala jege ñaaleem nee na mu muñ mu wëlbati ku doon jaam bi kese ci kaw ndax tuyaaba rek la koy indi loolu kon jullit bi moo mën a am loolu kon jullit bi ci ak dundam fii ci àdduna ki gëm yàlla bul fàtte ne baat bi al mu'min la jëfandikoo waaye jëfandikoowul muslim sax foofu ndax nit ki léeg-léeg mën a jullit la waaye fekk am na lu bari lu des waaye nag gëm moom su fekkee ngëm gi wér na ci xol bi kooku moo tax ñuy wax kooku fii ci dund àdduna gi amu fi aw métit lu dal ci kawam lu ne dana fexe ba wëlbati ko mu doon loo xam ne lu lu muy jëriñoo la moo tax day dox ci kaw suuf si ànd ak dalu xelam amul benn jafe-jafe amul problème boppam du ubbu lenn lu ko jaaxal amul ndax xam na ne ci loxo yi boroomam la nekk bi nga xam ne du def ci moom lu dul lu gën ci moom ki xas mel noonu amatul ay jafe-jafe léeg-léeg mbir ne xis nga ne àdduna tukki na aw yiw juddoo ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu ko génnee màkka moom ñee ko gëm kenn ku nekk ci ku doon xool ci kaw jàpp nga ne musiba am na lislaam ba wutut foofa lay yem foofu mu wàcc Madina taxawal fa état ak civilisation boo xam ne soppi na àdduna ak li ci biiram xam kon ab nattoo boobu boo xam ne lan la jur mooy loolu al imam ahmad ibn hanbal keroog bañ koy jàpp di ko dugal ci kaso bi di ko dóor di ko sonal boole ko ay jéng guddi ak bëccëg muy ndékkee ay yar di ko añe di ko reere kenn ku ne jàppoon na ne sunna jeex na booba mu génne ca kaso boobu foofu nekk imaamu ahli sunnati wal jamaa wëlbatiku nekk ki nga xam ne suñ ne imaamu ahli sunna rek ku ko bëgg ku ko bañu da nga xam ne moom la ñuy wax kon ibnu taymiya ci biir kaso ba lañ ko tëj ca la nekk ba faatoo ca waaye ñaata ci xam-xam la bind te fekk mi ngi nekk ci biir kaso boobu te su nekkuloon ci biir kaso ba du am jot bu mel noonu doy na rek nga xam ne majmu fatawa bii nga xam ne moom lañ am tey nekk ñaar tom ak juróom ci biiru kaso la ko ak yeneen ak yeneen ci ay téere nga xool ku mel ne imaam bu ñuy wax saraxsi wala sarxasi ñaar kii yépp daf cee am ndax dëkk bi ñu ko askan ñu koy wax sarax wala sarxas dafa am ñaari riwaaya yooyu moo tax léeg-léeg da ngay dem ci yenn téere yi ñu ne sarax si am ñoo xam ne dañuy wax ne sarxasi kon kooku tëj nañ ko ci kaso boo xam ne kàmb la bu yàqu ñu dugal ko tëj ko ca bi ñuy wax al mabsuut tey nga xam ne ñaar fukki tom boobee ci biir teen ba ci la nekkoon ay dongaam di taxaw ca bunt ba mu di leen ko dikti ci ak mokkalam ñuy bind téere boobu ci loolu la amee kon jullit bi nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf te xam doxalinu boroomam lépp lu tegu ci kawam ci aw metit dana ko wëlbati fab mu doon loo xam ne njëriñoon kese lay doon loolu nag mbir mu am solo mu mat a bàyyi xel la ci dundu jullit al imam ibnu asir kenn ku nekk xam na ko abu saadat ibnu asir handicapé la woon boo xam ne ñaari tànkam yëpp dafa dakk da doon raam suy dox waaye xoolal tey jaameewul usul ki bind téere boobu te mel melokaan boobu jaameewul usul nga xam ne daf cee boole mboolem juróom-benn téere yi gën a siiw ci xadis muy buxaari ak muslim ak abu daawud ak tirmisi ak nasaayi ak muwatta u malik yooyu la boole yépp taalif ko ci benn téere ba nag bépp vocabulaire bu nekk ci biir boo xam ne bu jafe la mu saraa ko nga xam ne tey ab delluwaayu dellukat dellu dellukaay la ci képp koo xam ne da ngay gëstu ci xam-xam xadis ci bëgg a xam ndax téere bi nekk na ci juróom-benni téere yooyu wala nekku ci ak baat bi nga bëgg a xam lu muy firi boo delloo ci téere boobu tey xam ko yëmul ci loolu mu taalif beneenu téere bu ñu wax an nihaayatu fi garib al xadis muy téere boo xam ne moom it delluwaat ab dellukaay la ci képp koo xam ne daa bëgg a xam vocabulaire yi nekk ci xadis yi yonente ci vocabulaire yi nekk ci juróom-benn téere yi waaye mboolem xadisu yonente bi sallallahu baat bu jafe boo delloo ci annihaaya fekk ci biir kooku mooy asir nga xam ne su daan dox day raam day darlu rahmatullahi alayhim ajmain kon almihanu binisbati lilmumini minah ñetteelu qaida أن التمكين والاستضعاف يخضعان لسنة التداول التمكين والاستضعاف التمkiin moo ñu jàpp ndalal la ci kaw suuf en tant aw xeet nga dominer mboolem xeet yi ci kaw suuf al istidaaf moo ñu dominer la ba nga suufe yeneen i xeet nekk ci sa kaw di jëpp jëppi ñaar yooyu nag muy xeet wu féete kaw ak xeet wu ñu jat yaxdaani li sunnati tadaawul maanaam dafa am sunna boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko teg ci kaw suuf muy tadaawul muy weccee da ngay aaya bu ëllëgee keneen aaya boo aaya tey bu ëllëgee keneen aaya adduna mu mel noonu moo tax borom bi tabaraka wa taala noonu la ko wax nee na in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mislu wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas nee na su metit tegee ci sa kaw ah xamal ne ñi la ko tegit kat metit tege war na ci seen kaw ñoom it démb wa tilkal ayaamu fani adduna yi nee na noonu laa ko bindee loolu àllaaxira jëm loolu àggu ko waaye fii ci àdduna moom dund gi ni mu bindoo mooy tadaawul weccee dañuy ay ay loo yaa aaya tey am doole xamal ne ëllëg ay ga ca des a ngi ñëw néew doole waaye bul fàtte ne jullit bi jamono yim amee doole ak jamono yim néewee doole benn bu ci nekk lépp daa war a wëlbatiku nekk njariñ ci moom ndax bul fàtte moom dong mooy la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mooy ki nga xam ne bu metit ñëwee mu wëlbatiku mu doon jàmm bu ëw yiw ñëwee itam nekk jàmm ci moom maanaam du bew waaye du saalif itam ñeenteelu régal bi ann tadaafua sunnatun rabbaaniya am na sunna rabbaaniya mooy tëraliinu sunu borom yi ne ci kaw suuf te du soppi fu mukk kooku la ñu tudde sunna rabbaaniya sunan yooyu yu bare bare bare bare waaye bokk na ci nag sunna bu ñu tudde sunnatu tadaafoo muy nit ñi ci seen bopp jañante gi ñuy jañante xeet yi ak civilisation yi su kii puusee kii puus kii puus kii puus dëkk ba keroog ñu wuy ci sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne walaw laa dafu llahi nnaasa la fasadat la fasadat il ardu walakin du fadlin ala alaalamin nee di jegante léeg-léeg kenn jóg bew ñeneen ci kawam wala am ku nar a dominer àdduna bépp lu tuuti ñëw dal ci kawam talatul kenn lu dul boppam rek la tal yu mel noonu su dul woon am nee na suuf si day yàqu moo tax ku jóg ku ne te bew wala nga bari doole rek dana am leneen lu taxaw fi sa kanam loola jaaxal yooyu tam noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala bind nu ko neex nag la koy doxale dem na ba àgg ci buur bu bew ci kaw àdduna ba nga xam ne doomu aadama fi nekk yëpp dominer leen suñu borom tabaraka wa taala boole mu dominer ko moom bindee fi suñu a tabaraka wa taala noonu la doxale àdduna kenn mënta tëj ñëpp loolu moo tax tadaafoo boobu day am loolu nag léeg-léeg mu metti lool lool waaye fekk nag aw yiw moo ciy juddoo juróomeel ba annahu la tamkiina duuna shurut la tamkiina duuna shurut ñu xam ne jàpp ndalal la ci kaw suuf nga dominer ko du am te fekk teguwut ci kaw ay charte yow jullit bi dafa am charte yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala nee na su notee ci xeet yi su gënee su ëppee ci xeet yi suñ fexee ba mu gën a bari su boobaa moom kenn duutu leen mën a not yooyu sunu borom wax na lu ci benn aaya nee na wa'ada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di xawfihim amna yacbudunani laa yushrikuuna bi shay'a wa man kafara ba'da dalika fa ulaika humu lfasiqun sun borom tabaraka wa taala nee na yàlla diggee na ñan la dig alladina amanu koo koy sàkk bu njëkk yàlla dig ne ñi ko gëm ngëm gëm nangu ne lii ak ngëm la alladina amanu mooy ñi nga xam ne seen pas-pas dañ koo teg ci alquran ak sunna ñooñu yàlla dig na leen nee na wa amilu ñu boole koog jëf-jëf ju baax ñaareelu sàrt baa nga wax du doy mukk nga ne gëm naa sama pas-pas wér na du ma bokkaale ci yàlla rek jeex na déedéet wa amilu saalihaat bunt bu yaatu la farata yi moo ci jëkk waaye farata yi nekkul géew bi nga xam ne nit yàlla yu baax yi foofa la ñuy rawantee fa ñuy rawantee mooy ya nekkul farata nga xam ne coobare wala bu la neexoon nga tëdd nelaw nga jekki ba quatre heures wala quatre heures nga jóg di julli ba fajar jot di jàng alxuraan di tudd yàlla di ñaanal sa bopp di ñaanal sa mbokki jullit yi géew boobee fa la julli di raw rawantee naaj wi tàng jër ngay woor koor goo xam ne bokkul ak kooru ramadaan foofa la ñuy rawantee jullit bu ñàkk sonn nekk ci ab rukk te rus naa taxaw di wax kenn ne ko aajo woonaa dara nga rocc ku jaar ca suuf defal ko la nga koy defal te ñaar yëgu ko ku dul yàgg sa borom ak moom kooku ci géew yi ñi rawantee foofa la bokk kon waa amilu saalihaati buñ ko firee mukk julli ak koor ramadan ak aj màkka ak joxe asaka yooyu mooy li nga xam ne mënta ñàkk ku ko defatul moom sa mbir kenn waxatul lu ci jëm waaye bañ ko defee ba noppi nag fa ñuy njëkkantee wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta uhibba loolu la borom bi wax foofa la ñuy nga xam ne jaam bi ca naafila yooyee lay nekk yàlla nee na ba ma bëgg ko kon foofa fa yëf ya nekk kon sàrtu bu njëkk bi mooy ngëm gi na wér dara ci bokkaale bu mu ko jege fenn waaye jëf ju ja nag na yaatu ba jéggi farate àgg ca naafila yi ci mboolem anam yi ca mujj ga ñetteelu sart ba mu ne yaabuduuna ni laa yushrikuuna bi shay'a dañu may jaamu te duñ ma bokkaale ak dara ndax boo xoolee alladina amanu ji mooy ngëm gu wér ga dafa mel ne làmboo na lii waaye dalay wax ne bi nga xamee ne ngëm gi wér na jaamu yàlla géeg naa fi lay lépp ngay am na sax ca loola nag bu mu dem ba mu yàgg mu dugal ci lu ci bukk bu mu dem ba mu yàgg mu bokkaale ndax li ko waral mooy doomu aadama ni yaramam di feebare noonu lay feebare ci wàllu diine léeg-léeg mu dem ba mu yàgg nga amul yëg ne yow day ni nga saware woon ci jaamu yàlla yeeg naafile yeeg def lu baax ak laa biire mbokk jullit yi yu mel noonu am na diggante boo xam ne toll nga fi boo xam ne da nga meloon melatul su boobaa gaawal delluwaat ci sa bopp nga vérifier ba xam lii lu ko indi ndax da ngaa tàmbalee am ànd dooyu baaxut ndax da ngaa dugal ci sa alal lu léwut ndax da ngaa def nangam ndax da nga contrôler sa bopp ba gis ne yow mii kat am na lu dugg ci yow loo xam ne nekku fa woon nga réparé loolu déparaat sa machine daal di baaxaat comme kuy door a génne ci garage kon doomu aadama ji ngir borom bi tabaraka wa taala jullit bi mu jàpp ndalal ko ci kaw suuf ak xeetu lislaam ngir ñu mën a dëgër ci kaw suuf faw ñu delluwaat nag ci ngëm gi defar ko ba mu baax waaye faw ñu nangoo sonn ci jaamu yàlla yi te rafetal ko ak naafile yi waaye faw ñu sax ci tawxid boobu te bañ ci tàbbal dara ci xeeti bokkaale juróom-benneelu qaayida bi te mooy bu mujj bi moo di ann allaha naasiru diinihi walaw kariha alkaafiruun jullit bi war naa gëm ne sunu borom tabaraka wa taala mooy taxawu diineem ji ak mu neex ku mën a neex ak ku mën a naqari diine lislaam daf fiy des pas-pas bu baax daf fiy des ba keroog muy soob sunu borom tabaraka wa taala mu di fi jële addunaam dana am ñu fi des ñoo xam ne ba lu jiitu loola ci lu néew ñu nga fi woon waaye nag jamono yi adduna di tukki nag foofa dana fekk ña baaxoon yépp nag sunu borom jël nay xaritam ak nitam ñu baax wax nee na laa taqumu assaatu wa ala wajhi al man yaqulu la ilaha illa allah suñ demee ba dara desul lu lu fitna ju metti ja ak tukkal àdduna nag ña fa desoon ñépp ci ñu doon wax laa ilaha illa allah te gëm ko sunu borom tabaraka wa taala day yebal ngelaw mu ñëw ngelaw lu sedd ëpp leen ñu daal nelaw loola mooy seenu faatu ñoom su ko defee bu àdduna tukki ñam fay fekk ñu bon rek lañ laa taqumu saatu illa ala shiraari xalq noonu la saxe ci xadis ba ku bon rek ka fay des bu boobaa kon ñu xam ne diine ji sunu borom tabaraka wa moo koy sàmmal boppam yow kay li la war mooy ñaan yàlla mu boole la ci ñiy bokk ci ñuy sàmm diine ñi di ci xëy di ci kër këri di ca liggéey di ca gont ndax loola ngëneel la lu la yàlla may borom bi nee na huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu ala diini kullihi walaw kariha almushrikuun nee na sunu borom tabaraka wa taala moo yónni ab yonentam ci njub ngir mu wàcce ko ci kaw xeet wi moo ko yónni mu indil ñu diine ji nga xam ne mooy dëgg li yuzhirahu ala diini kulli ngir mu yëkkati diine jooju ba mu féete kaw mboolem lépp lu ñu tudde diine ci kaw suuf walaw kariha al mushrikuun donte loolu naqari na bokkaalekat yi nee an yutfihu nuur allahi bi afwaihim wa yaqba allahu illa an yutima nuurahu walaw kariha alkaafiruun nee na borom bi ñii di jéem a xeex diine nee na dañuy jéem a fay leer boo xam ne yàlla ko taal ñi koy jéem a fay ak seen gimiñ borom bi tabaraka wa neena nee na yàlla bañ na wa yaba allahu nee yàlla yàllaa bañ lu dul ne dana mottali ak leeram bam mu àgg fépp fu mu war a àgg walaw karihal kaafiruun donte loola dafa naqari yéefar yi nga xam ne gëmuñu yàlla borom bi tabaraka wa moo ne kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyun aziz nee na yàlla moo bind ne maag samay yonent nooy not maanaam diineem ji moo fi des mooy not mu ne ah loolu dana jafe ni yi am nañ doole de mu ne inna allaha qawiyun aziz yàlla ñaari melokaan la boole foofu qawiy mooy borom kattan gi nga xam ne ku mu bëgg a not man laa not te mooy aziz ki nga xam ne loo am am kàttan boo bëggoon a not ci moom lu toll népp kawar doo ko mën borom bi tabaraka wa taala nee na inna la nansuru rusulana rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yowma yaqumu l ashhaad nee man yàlla maay dimbali sama yonent maa leen di jàppale ak mboolem ñi ma gëm la wax danoonu yàlla boole ci ñi gëm kon fi lxayaati dunia nee fii ci àdduna wa yawma yaqumul ashhad ak ëllëg bi nga xam ne ñëpp dañuy bokk dekki daje ko sunu borom tabaraka wa kon juróom benni ponk yooyu jaadu na kuy waxtaan ci défi yi nga xam ne moom la nit ñi dund tey nga jël ko mu doon sag làmbaay nga làmbaayoo ko ba noppi door di xool bépp détail boo xam ne yaa ngi xool ñu dugg nag ci ñaareelu tomb bi moo di taarifu tahaddiyaat defe naa définition yi moom jarut nu ci taxaw lu yàgg taxaddi daal moom buñ ko waxee ci kàllaam ak arab moo di al awaiq allati tuwaajihu masaara taxqiqi hadafin ma al awaiq allati tuwaajihu taxqiqa aw masaara taxqiqi hadafin ma gàllankoor yi nga xam ne mooy taxaw ci kanam képp ku dox jëm ci dara képp ku am benn objectif di dox ngir bëgg koo amal gàllankoor yi dox ci sa digganteeg moom te doon yu rëy nag maanaam yu sew sewaan yi kenn du ko tudde taxaddi moo tax dañ cay teg ne wa yatatallabu at-taxallub alayha badlu juhdin mudaaf maanaam not ko dafa laaj nag coono bu metti ndax gàllankoor yooyu doonul yu ndaw ay pakk la yoo xam ne dañoo sax comme ay buuti garab yu mag yoo xam ne dañoo sax ci digg yoon wi ngir nga mucc ci laaj na coono boo xam ne coono bu mag la kon gàllankoor yooyu rek moom lañ jublu ci pakk yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon wi yow miy dox jëm ci lu baax pakk yooyu di la dogale ñetteelu tomb bi mooy anwaaru taxadiyaat xeet yi nga xam ne pakk yooyu am nañ ko am na taxadiyaat yi bu fekkee da koy xool yoo xam ne am na ci yoo xam ne kenn ku ci ne dalay gaar yow sa bopp en tant que nit am ci yoo xam ne xeet wi ci boppam lay gaar kon am na yoo xam ne fardiya la am yoo xam ne umma bi lay gaar waaye bu fekkee dañuy xool ci palaasam ak ak ak mawqi am moom taxaddiyaat yooyu am na ci yoo xam ne daaxiliya la am yoo xam ne xaarijiya la am na yu ne ci biir am na yu ne ci bitti loolu danañ leeral luñ jublu ci biir ak luñ jublu ci bitti moo tax dañuy tàmbali rek ci at taxadiyaatu daaxiliya muy pakk yi nga xam ne dañoo ne ci biir daane ne ci sunu biir noonu pakk yooyu ne ci sunu biir ñaari xaaj la am na ci yoo xam ne daatiya la am na ci yoo xam ne mujtamaiya la am na défi yoo xam ne yow dafa daf laa dafa taxaw ci sa kanam yow daf laa dogale yow ci sa bopp en tant que kuy dem kooku boo jëlee li ñu tudde amradul xuluub xeeti feebari xol yi nga xam ne dañuy dal doomu aadama ci wàllu diine yépp foofu lay dugg taxabiyaat zakiya néew na nag ku ci mucc waaye li am solo mooy bu la dalee nga xam ko ndax nga mën koo saafara bari nañ wàcc ci kaw xeet wi tey ñi koy tuumaal ñeneen fekk ci ñoom la jóge ñoom seen bopp ñoo ko teg seen bopp moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain keroog ca Uhud bi nga xamee ni musiba mi am am na yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane joxe ndigal ne ñii yéen taxaw leen fii bu leen wàcc ak lu mën a xew su ngeen gisoon malaayika yi di wàcc di këf noon yi itam yéen doj bi montaañ mi fi laa leen taxawloo bu leen wàcc xeex bi tàmbali ñu gis jullit yi gañe yéefar yi yéefar yi tàmbali di daw di sànni liñ yoroon ci ay ngànnaay ci ay matériel ci ay xéewal gaa yi daal di ne ah, mbir mi de kon jeex na tàmbali di wàcc seen amir ne leen bu leen wàcc bu leen fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ñépp wàcc wàcc ko fa moom dong ci la musiba ma am amee mooy Xaalid ibnul Walid booba nekkagul jullit mu jaare ca gannaaw dikk montagne mi nga xam ne moom lañ leen taxawloo woon moom mu yéeg taxaw foofa te bépp xeex boo xam ne xeexu fett la ku la féete kaw moo lay gañe naka ñu féete kaw rek fett daal di tàmbali yéefar yi doon daw gis na seen benn kuréel muy benn armée boo xam ne dañ koo defoon fële dañ ko réservé woon moo yéeg léegi ci kaw montagne mu ña doon daw daal di wëlbatiku nag jaamaarloog jullit yi jullit yi wëlbatiku del siwaat gannaaw fekk gaa yi ne ci kaw montagne ma kon ñu nekk ci diggante bi léegi foofu la musiba ma amee plan bi leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tegaloon moom lañ bàyyi waaye mu jaaxal leen nag am ci ñoo xam ne seen pas-pas di bëgg yëngu ñu ne yonentub yàlla ñi koy jam ñuy damm bëñam saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo gën ñëpp ñu leen di fii def nangam coow li bari ci seen biir borom bi tabaraka wa taala lu mu leen wax mu ne awalamma asaabatkum musibatum qad asabtum mislayha qultum anna hada bi musiba bi wàccee ci seen kaw ngeen ne lii nu mën a amee qul huwa min indi anfusikum waa ah, ci seen biiri bakkan la jóge qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir borom bi tabaraka wa taala leen lu nekk moo ko mën kon ngañaay yi dal ci kaw jullit yi ñuy yéemu naan nun noo gëm alxuraan ak noo gëm sunna ak noo nekk ci yoon yoon nan fan lan war a mën a jaar ba musiba yu mel nii di dal suñ kaw diñ del siwaatee xoolaat suñ bopp danañ gis ne lu ci bari qul huwa min indi anfusikum jooju day del siwaat kon défi yooyu nga xam ne dañoo nekk ci biir bakkan yu mat a bàyyi xel moo tax borom bi nee na wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir lépp lu dal ci seen kaw ci musiba yéen a ko faggu yéen ci loxo te lu bari sax yàlla da leen koo jéggal waaye kon mbir mi dana fi gën a metti wa yaqu an kathir kon bànneexu bakkan nga xam ne nit ki day topp bakkanam rek mu nekk imaamam fu ne fii la rek mu ne foofa la loolu yëmul ci mooy yàlla yi rek ndax yi sunu borom tabaraka wa taala baaxe ba ñu góorgóorlu ci alxuraan ak sunna lu bari aaro nañ ci wet googu ci lu gën a bari waaye bànneexu bakkan ci wàllu xalaat lii daal man xalaat naa ko mooy sama xalaat kenn mëntu tax mu bàyyi ko bànneexu bakkan ci ne man lii mooy sama kuréel lu dul moom kuréel boobu bu tekki dara bànneexu bakkan ci ne kii mooy sama àndandoo mooy sama xarit lu mu wax dëgg la kii mooy sama cheikh lu mu wax noona la bànneexi bakkan yooyu foofu la seytaane di gañee nit ki mu nekk ci kanamam benn défi boo xam ne mi ngi dox digganteem ak alxuraan ak sunna te yëgu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon xubbu dunia wa karahiyatul yooyu ñooy al waahid li doyadal nit ki ñàkk ko solo mooy xol bu aju ci àddunay kese fàtte àllaaxira jullit bi néew ñu ko bàyyi àddunaam ak li ci biiram ndax yàlla moo ko bind andi ko fi te daf ne ko famshu fi manaakibiha wa kulu min rizqihi moo ne ko doxal ci kaw suuf fàggul alal jariñu ci moo ne qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min arrisqi qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia nee na yu baax yu naat yi nekk ci kaw àdduna jullit yi ñoo ci gën a yeew waaye nag fa musiba may amee mooy xol ba aju ci àdduna bu woon gannaaw àllaaxira wala mu jël àllaaxiraam di ko tàggat ngir am ci àdduna kooku mooy musiba mi kon xubbu dunia bi tax ñuy wax mooy xol bi aju na ci àdduna ba lu dul àdduna waxu ci dara mel na ne moom daal kii doo nga ko tax a jóg bu jaree jaay diineem mën naa jaay diineem bu jaree jaay pas-pasam bu jaree jaay ngoram bu jaree jaay am réewam jaral na ko jaay ko ngir lan ngir na am àdduna kooku musiba la défi boo xam ne nit ki dafa war a xeex moom bokk na ci xubbu zuhur xubbu zuhur boroom xam-xam yi nee nañ xubbu zuhur yaqsimu zuhur bëgg a feeñ day rëq ndigg yaqsimu zuhur bëgg a feeñ musiba la ci ab ab jullit am na ñoo xam ne luñ def lu mu mën a doon suñ sañoon ñépp yëg ni ñoom ñoo ko def suñ la joxoon dara sax mbubb sax nga sol ko yaa ngi ci mbooloo mi sol ko su sañoon ñu xam ne mbubb mii nga sol moom mii moo la ko jox soo ko waxul sax amaana yow boo léegi du la joxaat ndax ndax yëgle woo ko te da nga ko waroon a yëgle kon xubbu zuhur muy bëgg peeñ loo def lu nekk fësal ko ba wane ni lii man maa ko def lii maa ko moom lii su doon ak man du am taxaw di waxtaan ci sa bopp naan man maa man lii maa def nangam maa def nangam nangam ak nangam maa ko fi defoon su ma ko deful woon kon du am xaw ma comme ku ma gër a mel nangam musiba la jëfi la boo xam ne dafay dagg nit ki ci yoon wi jëm ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala ashahwatul xafiya kooku ci degré la bokk taabiroon yi noonu lañ ko tudde woon ashahwatul xafiya mooy xobbu riyaasa bëgg ak jiite nga xam ne foo dugg fu ne rek loo nekk lu ne da ngaa bëgg ne ñëpp maa leen jiite bu dee mbooloo yaa bëgg a nekk amir ba bu doon ñaar ñuy dox dañoo bëgg ne yow la ñuy déglu bu dee jàkka ja yaa bëgg a doon imaam ja bu fekk fépp foo nekk daal yow boo sañoon yaay ne ca bopp ba benn daal may ne ci bopp bi wala keneen ku fa nekk danaa ko jéem a teqatal ba nga xam ne damuy doxee doxin wa du rafet kooku musiba léeg-léeg nga gis ay mboolooy lislaam yoo xam ne dañuy xuloo ci ay mbir ci lu ñuy xuloo ñu ne ah kii daa bëgg a jiite kii bëgg a jiite nga dem ci jàkka fekk ñu xuloo am na jàkka joo xam ne xuloo bay saagaan ci biir jàkka ji diggante ñaari imaam ba saaga yi nekk ci microphone bi nit ñi di ko dégg ci bitti ci kaw lan ci ñu ne imaam kii da koy jéem a téqatal ndax nee na dañuy nodd su ko defee bu tardee tuuti rek moom mu gaaw taxawal daal di jiite yaa xii fexeel ba bu ñuy nodd yow nga ñu taxaw bu fekkee noonu la la jiite jarul waaye bu fa bu dee da ngay tardeel nit ñi ba noppi nag doo bëgg keneen jiite ndax ku jiite ku ne nga ne lool xeetu coup d'état la waxoon dafa maa bëgg a jële foofu kooku musiba la defe naa ne feebar la boo xam ne mi ngi ci askan wi boo xam ne bu rëy rëy la boo xam ne jaadu na nu xeex ak moom ngir ko ba bëgg njiit ñu jëli ko parce que li ngay jiite lu mu doon yàlla xam ne ne bu doon am réew sax ñu ne la yaa ko jiite ab natt la ab yan bu diis la aw métit wuñ teg ci saw loos la kon suñ la mayee jàmm yow jiitaluñ la ci loola santal yàlla nekkal ci seen gannaaw te fas yéene ne l'islam day dafa doon loo xam ne kenn ku ne fa nga taxaw mën nga faa liggéey yàlla xam ne ne am na ñu ne ca gannaaw nga xam ne kenn xamu leen boo dikkee ci biir groupe bu jullit yi ñooñu la ñuy liggéey ñu nekk ci bopp bi nga xam ne ñoom la ñëpp xam sax defuñu ko ñooy organiser mbir ya ñoo koy coordonné ñoo koy lijjanti lay bëgg a yàqu ñoo nekk ca suuf di ko defar ñooñu ñooy liggéeyal lislaam kon bëgg ak njiit kooku défi la boo xam ne mi ngi ci biir xol yi tey mu ngi ci xel yi dañ ko war a xeex alxasad kiñaan feebar la boo xam ne pour nga ne man ci boroom xam-xam yi laa bokk wala nga ne ndongal xam-xam laa wala nga ne man de ci ahlu jamaa ci laa bokk wala sama pas-pas wér na wala bañ naa biddaa xeet yooyu yépp taxut mu mucc ci kiñaan kon feebar la boo xam ne ku ne war ngaa gëstu sa bopp ba xam dal na la am déet su la dalee yëgal ne koo koy défi bi gën a mag sooy ba nga jéem ko dindi su dajul sa jéego jëm ci sa ngërëmul boroom du sori du dem te moom mooy lan muy xéewal gi yàlla defal sa moroom jullit nga bëgg mu dañ ba noppi nga am ku mel noonu yow kooku kooku baaxut kii xalaate noonu li nekk ci doomu aadama yi daa war a jóge ci ñoom man ma am ko nag man dong ah kooku de borom bi tabaraka wa taala mën nga koo bëgg yàq ci sa der yàq ci sa pas-pas yàq say tuyaaba waaye nag borom bi du la ko defal de maanaam loolu moom du ko def dëgg la nit ki mën naa gis mbokkum jullitam am dara mu mu ne ak a neexoon ma am lu mel noonu hmm? ak neexoon bu mu dañ itam nag lu tax nga ne da ngaa bëgg mu dañ it fi nit ki war a defee li ñuy tuddee xam ne léeg-léeg ko ki ñaan lañ ci jublu mooy ci géewu jaamu yàlla la nit ki war a ne ak neexoon ma am lu mel noonu kii daal ni ma ko gisee ak njàmbaareem gi ma seetlu njub gi ma seetlu lim jàmbaaree ci jàkka ji su ñuy joxe fi nim ci jàmbaaree nga xam ne jaroon na ko boobu soxla nekk ci këram bi ko joxe ko ak a neexoon mu mel ne moom foofu lañ war a indi ñeetaane doomu aadama kon loolu lu mot a bàyyi xel la ndax li ma wax léegi moo di boroomu xam-xam sax du ci mucc bu leen fàtte xista euh, bi doxoon diggante al imam ak cheikham bi ñuy wax muhammad ibn yahya al zuhli al imam al buxaari dafa dëkk ca marwu jàngee fa Muhammad ibn Yahya bokk ci ñi ko jëkk a jàngal waaye mu jóge fa bàyyi ko fa dem wër monde islamique bi yépp sàkku ji xam-xam ba siiw ci àdduna ba ñépp xam Buxaari mu wëlbati ko ñibbisi bi muy ñibbisi ci dëkkam boobu imaamam imaam ji xam ne mooy boroom xam-xamu dëkk ba di Muhammad ibn Yahya moomu moo jiite ña ko doon teeru ci bitti mbooloo mu bari mu dul jeex ñu àndandoo dikk di teeru si Buxaari biñ ko teewee ba mu ñëw moom mi doon cheikham ba ko doon jàngal moo ko présenté nit ñi ne ko kat ni leen kii ngeen di dégg doomi dëkk bi la fii la jànge woon génn fi dem jànge jël si wala boroom xam-xam bu mag la tagg ko ne ko àdduna bépp xam nañ ko loolu su ndam la indi ko ci jàkka ji nag ne ko tey bis bi ma waroon a jàngale chaise bi ma toogoon yaa fiy toog tey jàngale Buxaari toog fa jàngale ci ëllëg sa mu ne ko defaatal noonu mu defaat mbooloo mi di yokk rek ñetteelu fan ba mbooloo ma gën a yokk ba bari mu jaaxal leen liñ déggee ci moom ci xam-xam ci ëllëg sa nag mu ne ko mën ngaa jël koñ bële ci jàkka ja ubbi foofa sa sab géew sab xalqa daal di continuer di jàngale moom Cheikh Mouhamad ibn Yahya naka mu tàmbali Buxaari ubbi fële ñépp daal di ci Buxaari mu dese lu néew ci mbooloo bésub ñaareel ba mbooloom sa di wàññiku ba ñetti nit des fa ñëpp defu géew wër Buxaari te moom gisatul kenn foofu rek la seytaane di ñëwee amatul benn pexe mu yabal koo xam ne daa ñëw di gëstu Buxaari ba xam dana dégg ci moom lenn loo xam ne pas-pas bu yàqu walla wala njuumte wala dara loo xam ne danañ ko mën a tasaare ngóor sa ñëw dugg ci biir xalqa bi di laaj rek ay laaj yu dul jeex lu ne mu laaj ci te jamono yooyu lañ toll ci masala bu ñu tudde xalqul quran nga xam ne lu doy waar la ku wax li ci jëm sax boo tuur rek da dangay da ngay ñi laaj buxaari masala lu aju ci loolu ndax lafzi bil quran maxluq baat la boo xam ne ci waxin yi la mu tontu tontu loo xam ne lu wér la tontu lu wér loo xam ne boroom xam-xam sunna loola la ñuy tontu waaye ngóor sa ñëw ne ah moom day jóom na ci masalatu xalqul quran Muhammad ibn Yaxya daal di koy jël commencé ne sama laa biire mooy bu leen ko déglu ndax man kat bi ma ko fi indi damaa defoon ne borom pas-pas bu wér la waaye xaw ma woon ne biddaa lay woote yàqu deram loolu doyul mu ab leetar yónnee ko buur ba ne ko Muhammad ibn Ismail kat wër na àdduna ba dellu si ñëw na di yàq pas-pasi doomu aadama yi buur bi woo ko mu ñëw mu laaj ko li muy wax lu mu doon mu wax ko lépp mu dégg mu leer ci moom bi Buxaari àggalee daf ne ko soo ma joxee ndigal danaa continuer di jàngale soo ma joxee ndigalul bàyyi yit danaa bàyyi ndax danaa am aw lay fa sama kanam borom mu ne ko baax ma demal di ma déglu ay fan yu néew mu yónni ndaw ne ko nee na nga bàyyi njàngale mi noonu la arrêté njàngale ma jógee Naysabur dem ca ndëkk su ndaw sa nga xam ne fa la juddoo woon muy village ba mu toog foofa taxoo këram xanaa gone ya fa nekk ak ñam gis mu nekk ak ñoom di dund ak ñoom diine di leen jàngal ba suñu borom tabaraka wa moomu ko nga xam ne xam-xam boobu ci wàllu jàngale ñu néew ci jariñu su dul woon téeréem bii mu taalif tey muy saxiixul buxaari xoolal ki ñaan fi muy fi muy fi muy àgg ak fi muy dugg moo tax ab xam-xam taxu ci mucc mbirum ragal yàlla la ak seet sa bopp ak di fugloon ci sa diggante sa ak boroom ab ak xam li jaaru ak li jaaruwul boo gisee may suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne kii lim yor nii yàllaa ko ko may bu ko ci jiima iñaan sàkkul ci moom sax ñaan ñaanal sa borom tabaraka wa taala mu may la sax lu gën lim yor moom faf li ci nekk mën naa nekk waaye nag lim yor na dañ naa ko xeex naa ko galgal parce que daal ak tabax la boo xam ne dama ko war a toj ba noppi tabaxaat ma tabax ci kawam kooku moom mooy musiba moo xam ne mooy défi bi gën a mag ci xoli doomu aadama yi tey ñu war saafara ngir mën cee mucc kon daal défi yi nga xam ne yooyu biir la buñ jàpp ne ay noon ñoo toog fële dinu ko ràbbal waaye li ci bari nun ñii noo koy dund te war koo raxas ba mu set wecc ci suñ xol yi suñ ko dindee ba noppi door a mën a waaxu waaxu bi mën a gaaw doora a dox dox bi door a am na yeneen défi yoo xam ne ci biir la nekk waaye ci biir société bi la nekk ñëpp bokk ko nag yooyu bokk na ci al jaxlu bi diin maanaam réere diine kenn ku nekk xam na ne yàggoom diine askan wi soxla nañ ko fii mu nekk ndax diine ji xam diine xam-xam la diine joo xam ne lañ jëkk a wax am yonentam mooy iqra mooy jàngal kon askan wii di askanu lislaam moom dañoo war a góorgóorlu dañoo war a jàng yëmul si dañoo war a jàng diine waaye dañoo war a jàng diine xam ko waaye dañoo war a jàng lépp loo xam ne day jëmale aw askan kanam ndax dellu gannaaw jullit yi jéggi na dayo te li ko waral ñàkk a xam diine ngi ci biir waaye ñàkk a jàng seen àdduna ba xam ko ba noppi dundal ko ci anam goo xam ne mooy gi diine laaj ci wàllu maanu ak jub ak éthique ak melokaan yi nga xam ne moom la lislaam santaane kon réer ci diine mi ngi ci biir waaye al jubatu ala al qawli fiihi dëgëru fit ci wax ci diine itam mi ngi ci ci défi yi la bokk tey kenn ku ne rek mufti nga léeg-léeg nga déglu programme yi ñuy wax wax sa xalaat mbir moo xam ne ci diine la aju nga xam ne niñ koy waxe bu doon ci jamonoy saxaaba ya tey ngir ñi man cee wax dañuy daje mu dajale muhaajiroon yeeg lansaar yi lu leen ci door caa mën a wax nga dégg ñi ci mbedd bi kenn ko ne man de nii laa ko gisee kenn ko nee de laa ko gisee kii de nii laa ko gisee nga gis ay doomu aadama yoo xam ne kenn xamul itam fuñ jàngee diine ci àdduna ak ñu jàng ñu am fitu taxaw di ubbee ci bépp masala moo xam masala bi mujju xeet wa da caa aju wala musiba yu mag mën na caa juddoo seen yoon nekku ci loolu dañuy laaj daal ñu tontu la kooku ci mbirum fooyee diine ci la bokk bokk na ci kasratul mudillin bari ñi nekk ci kaw suuf di réeralaate ci kaw diine xam nga ñu jàng diine bu bariwul ndax nit ñi ci diine day yomb léeg-léeg nga ku yor ay diplôme yu mag a mag a mag a mag a mag waaye ci leneen la ko jàng jàng ko ci diine tey am na reste reste boo xam ne dafa respecté waa diine parce que loolu itam nag moom lañ juddoo fii moom lañ yaroo mooy kon gis ngay kër kër yi ci diine nag dañ lay respecté nga gis koo xam ne jàngul dara ci diine waaye sol na mbubbum diine wala bokk na ci kërub diine ñëw fekk kookee nga xam ne boromi diplôme yi njàng ba war a mën a jariñ xeet wi la mu ñëw xëcc ko di ko dugal ci yëfi gone yoo xam ne kenn xamut lu mu doon ci àdduna yàq àddunaam léeg-léeg ci côté njabar la koy jaare léeg-léeg ci côté exploitation la koy jariñoo la koy jaare li ciy xew ci ay xew-xew kenn xamul lu mu toll xam nga am na fi waa joo xam ne bu yàggul rek ku dem ba nekk chef d'agence ci banque di topp ay gone yu mel noonu nga xam ne xel nit ñu jàngul xamuñu dara ñi ñëw di la ndax di la dugal ci ay yëf ba dugal la ci xeeti jabar ak yëf yuy gëlëmalaateeg ñi ñëw di ko laaj muy tibb rek di leen jox di tibb di leen jox rek ba li woon ci banque bi lépp jeex ñooñu dem réer ñu xëy jël yóbbu ci koo xam ne yow lii nga jàng ci la sa xam-xam loolu day yëgal nit même ñi nga xam ne dañ leen di jàngal xam-xamu àdduna moo xam ci économie la jëm moo xam ci politique la jëm moo xam lu mu mën a jëm jaadu na jaadu na suñ biir école yii ndaw ñuy jàng ji dugalal leen ci xam-xamu diine ba kenn dut leen ci mën a nax bu dul woon dara lu dul ñu bañ leen cee mën a nax sax di tas réew mi ci turu diine rek loolu jar na ko jàngal leen diine yar leen ci ba ku ñëw bëgg laa nax ci turu diine nga di ah loolu nag moom xam naa lii nga wax nii xam naa ne pas-pasub lislaam nangam ak nangam ak nangam la wax te sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangam la ñii def yooyu koo ci wax loolu mu dog li ñu bañ a dégg mooy alquran ak sunna koo ko ci wax rek muy jum bi nga xam ne da leen di xoymet rek ñu daw kon kooku euh, lu ma bàyyi xel la loo xam ne lu jaadul eh, bokk na ci yooyu itam zahiratul xuluw defi yi nga xam ne dañ koy dund ëppal ci wàllu diine léegi danoo nekk ci àdduna yoo xam ne dafa xëttaloo dañ daan wax ne àdduna bi dafa mujj mel ne ab ab pariya maanaam benn village waaye léegi weesu na lool daa mel ne ab xayma daa mel ne benn tànt la léegi ndax nii mu xëttaloo internet beeg la ca aju lépp bépp xalaat bu ñu jël di ko tasaare ci biir internet am na ay ndaw yu nekk ci biir ay rokk di ko jàng di ko déglu te ña koy tasaare xamul ñu mu doon ci àdduna mën naa doon ñoo xam ne màbb diine leen tax a jóg mën naa am ñoo xam ne tas euh, liggéeyu lislaam a leen tax a jóg waaye ci turu lislaam lañ koy waxee ay ndaw di jàng xalaat yu diir yu teeng yu jéggi dayo yooyu di ko fas mën a jóg di def ay njaaxum ci turu diine rawatina di ko askane ahlu kooku mën a ci défi yi nga xam ne yu matu saafara ci la bokk maanaam ëppal ci wàllu diine moo xam ci wàllu xalaat la moo xam ci wàllu pratique la diine ji dañ ko jàng ci alkuraan ak sunna jàngee ko ci boroomi xam-xam waaye moyens yi nga xam ne moo tasaaroo tey ku ca yem nga xam ne guddi ak bëccëg xool ay site xool ay ay ay image ak yu mel noonu ca nga yem da nga xëy fii gàddu sa jaasi wala nga gàddu sa fetal koo dajal dal ci kawam wala nga fetal ko ndax da nga ne ñëpp ay yéefar lañ kenn nekkatul ci diine lislaam kooku musiba la moo xam ne ñu ngi koy dund tey te war nañ ko bàyyi xel te nag saafara ko ñi ngi koy yaakaari ci borom xam-xam yi ak jàkka yi ak njàngalem lislaam moo xam ne mu wér mu tegu ci alquran ak sunna la bokk na ci défi yooyu nga xam ne sociétal la maanaam société bi dañ koy dund moo di zahiratul irja mooy bi jaama bi jàkkaarloo ak bi ma doon wax léegi ëppal ci wàllu diine beneen bi mooy yées ci wàllu diine ndax am na ñoo xam ne kat dañoo jàpp ne ngir nga xeex ñi ëppalit mooy nga xëcc leen daanaka ñu bàyyi diine nag maanaam delloo si leen su nit ki demoon ba toog ci taabal ñi koy séddale sàngara mu jóg dem sax ñu ne kii moom dafa ëppal ah déedéet maanaam dafa am lu nekk ci diggante bi loo xam ne moo gën yées waaye àggul nag ci ëppal loola mooy lislaam wa kadalika jacalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaasi wa yakuna rasulu aleykum shahida yàlla danoo def nu doon nu nekk xeet wu war a digg doomu nga xam ne duñu ëppal waaye nag duñ yées itam ba lu ñëw rek ñu jàllale ko bokk na ci defe yooyu nga xam ne société bi dañ koy dund it al furqa al furqa taqalikoo kuréel yi kuréel yi nekk ci biir diini ak ñu mën a tudde kuréel ak ñu ko jàppe su fekkoon ne dañ kuréel la bu ñëw dajale mbooloo di leen jàngal alxuraan ak sunna jàngal mu wér tur yi du lor du lor dara ndax da lay wóor ne kuréel bi nekk fii ak ba nekk fële ak ba nekk fële su doon junni kuréel sax ñoo bokk lu ñuy jàng ñoo bokk lu ñuy def ko tàqale aw xeet amu ci te kuy bay ci benn tool kii dal ca koñ bële kii dal ca bële kii dal ca bii mu wóor ne benn tool bi ngeen bokk nekk di jëfandikoo même matériel bi ngeen di jëfandikoo bu yàggee da ngeen di daje ci diggu tool bi rek mu nekk genn mbayif te loolu lañ bëgg waaye nag su fekkee ne duurut loolu nga xam ne luy tàqale xeet wi la ci seeni i pas-pas tàqale leen ci seen i jaamu yàlla tàqale leen ci seen jikko taqale leen ci lépp loo xam ne lu waroon a boole ab jullit la nga jut andi fanatisme boo xam ne kenn ku nekk danga nga naan daal roq bu xat bii ma nekk mooy lislaam ku fa nekkul bokkoo ci diine lu mel noonu mu musiba la kooku ci défi yu mag yi nga xam ne des ko war a xeex mu jóg fi ci la bokk bokk na ci alfawdawiya wa giyaab tansiq anarchie bi nga xam ne lu bari ci ñuy liggéeyal lislaam dañ koy liggéey tey te benn coordination aku jàppalente néew ci doole lool mbooloo yi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy liggéey ay tur waru leen a tàqale war nañoo mën a góorgóorlu ba bokk ay programme ci seen daxwa ci seen liggéey ci seen lépp loo xam ne dañuy jàkkaarloo moom war nañoo mën a ànd nekk sofan waaxidan fil bunyaanil marsuus benn sappe boo xam ne ni sappe julli yi mel suñuy julli nga xam ne kenn du xàmmee ne kii ci mbooloo sàngam la bokk kee ci mbooloo sàngam la bokk activités yi war naa mën a dem ba bokk noonu ba mel noonu te des cee war a dox te dox ci rek mooy tax lu mel noonu am waaye nag lii nuy gis moom défilé boo xam ne moom itam des ko war a saafara bokk na ci défi yi nga xam ne mu ngi ci biir société bi te duñ ci tuumaal kenn bàyyi keneen waaye ñëpp la gaar wala ñëpp la mën a gaar al infisaam an nakit bayna fiqhi lwaaqi wa fiqhi lwaajibi fi lwaaqi ñàkk xàmmee li ñuy tudde fiqhu lwaaqi muy xam réalité ak li ñuy tudde fiqhu lwaajibi fi lwaaqi muy réalité boobu boo ko xamee ba àggal lan moo fa war nag ndax léegi danoo toll jamono joo xam ne fiqhu lwaaqi ñëpp a ko xam ñëpp ñëpp ko am léegi muy xam li xew gone ga gën a tuuti fii tey nga xam ne jàngul dafa dara bu duggee ci biir internet bi mën na la nett li yay xew Pakistan nett li yay xew Yaman nett li lay xew feneen ak feneen bu toogee ci télévision nett li la ko portable am bii mu yor di ko wuyu bu ko yoree nii di manipulé bu nes tuuti mën na laa jox xabaar yoo xam ne Chine lay xewe wala Australie lay xewe kon léegi xam li xew moom doona tudd lu doomu aadama di damoo waaye en tant que nag yow ab wootekat ab jàngalekat ab yarkat li xew tey lan moo fi jaar foofa la yëf ya nekk ban taxawaay lees ci war a am foofu la yëf ya nekk kon foofu ab liggéey nga fi bu rëy boo xam ne défilé ci défilé tey ci askan bi ne yi di xew tey ban position lañ ci war a am julli yi lan lañ war a mën a xew ndax ñu yewwaat jógaat taxaw mën a jëmaat kanam kooku défilé boo xam ne ab liggéey bu rëy rëy rëy la eh, bokk na ci défi giyaabul fiqhi fi tafriq bayna ma yanbagi an yakun wa ma yumkinu an yakun ñàkk xam wala ñàkk a taqale li war a nekk ak li mën a nekk daa am lu war a nekk nga xam ne lii moom moo jaadu woon ne mbir nii la waroon a demee waaye nag fii nga toll lii moo mën a nekk ñàkk a xàmmee loolu day tax li war a nekk nga ne faaw lépp nekk tey la loolu mooy dem ba jur nag ay xalaat yoo xam ne dana jéggi dayo boo gisee yenn fatwaay yi nga xam ne dañuy xëy xëy benn bés dem ba ay mbooloo di ci juddoo sax tey xëy xëy benn bés ne lépp loo xam ne am njàng la mu dul njàngoom lislaam dafa xaram loolu ay fatwaay yu génn la lu tax muy am mooy ñooñu dañoo xàmmeewut li war a nekk ak li mën a nekk waaw loolu mënta nekk dañoo dem ba nekk foo xam ne ay askan dañoo taxaw société taxaw ay réew taxaw ñi koy gouverner ci loo xam ne du l'islam kooku mënoo xëy xëy benn bés na tey jii ñépp dañoo war a àtte wal islam ma ñu jóg fi soo ko defee fit na ngay taal waaye loolu sotti kon faw war nga xam ne li war a nekk ak li mën a nekk li mën a nekk nag boo ko xamee te xam li war a nekk da ngay liggéey fa nga toll te def noonu ba keroog loola di mën a yëngu mën nga koo fekkee say sët mën nañ koo fekkee sa sëti sët sax mën nañ koo bañ a fekke ñoom képp xamu kañ la mais yow fexeel ba sa borom mu ne waaw yow nga nekkee fële gis fa nangam ak nangam ak nangam loo ca doon def ah, man de wax dëgg yàlla maa nga doon digle lu baax lu bon maa nga woon ci jàkka ji di xutba de maa nga doon jàngale maa nga doon dajale mbooloo ma di wax ak ñoom de yaroon naa sama waa kër de yaroon naa sama njaboot de ñu ne la kon yow su jaan wàcc na waaye kenn du la lu tax daanee doo gouvernement ya toj université ya daal di indi l'islam nit ñi di ko loolu moom borom bi du la ko laaj boobaa parce que defoon nga li nga mën kon faw nga xàmmee li mën a nekk ak li war a nekk loolu nag fiq la boo xam ne ñàkk koo am ci défi yi ci la bokk tey bokk na ci défi yooyu itam nag ghiyaabul xukmi bi ma anzala allah li nga xam ne dafa dal askanu lu bari ci réew yi jullit nag tey xam nga lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yi saxaaba yi ci jamono mën nga wax ba ci jamono yi nga xam ne état turquien yi ci lay ci lay daanu muy osmaani yi yow nii ñooñu yépp l'islam lañ doon attewoo biñ demee ba wàccee l'islam mu daanu nag ñu indi laïcité di ko wàccee di ko attewoo nag teg l'islam bële kooku it défilé boo xam ne la chaque année indi na lu bari ci ay fitna ci biir jullit yi indi na ay xeex indi na ay njaaxum ay nit tegee nañ fa yéefarloo doomu aadama ci kaw ne attewuñ lu dul alxuraan indi na daal njaxas lu bari ci biir askan bi ci kaw bàyyi goo xam ne jullit yi bàyyi woon nañ ko attewoo alxuraan ak sunna woon ko gannaaw kon foofu moom itam défi bokk na ci défi yi nekk ci biir société bi it taysiru radail taysiru radail wa taasiru lfadail yombal lu bon ba noppi jafeel lu baax loolu dafa fës ci suñ société yi ki jóg bëgg a bon daf koy yomb lool fu mu geesoo rek mën naa gis lu bon mu daal dugg ci biir waaye ki jóg bëgg a baax nag day bëri lu yàgg nag door a mën a baax day jóg lu yàgg bëri door a mën a baax bokk na ci defi yooyu muawiqaatu tarbiyati nash ala al mabadi al islamia gàllankoor yi nga xam ne day dox suñ diggante ak mën a yar njaboot gi ci lislaam gàllankoor yooyu ay defi yu mag la jumtuwaay yi ma doon tudd léegi mu ngi ci biir presse mu ngi ci biir moo xam bu ñuy seetaan la wala bu ñuy déglu la wala bu ñuy jàng la yooyu yépp doon na ay gàllankoor tey ci ndaw ñi nga mën leen a contrôler mën leen a yar mën leen a teg ci siraatul mustaqim ñi jub loolu bokk na ci li gën a jafe kon lii boo ko seetloo ay défi yoo xam ne euh, mi ngi jaamaarloog askan wi ci biir société bi ñu di ko dund kon loolu mooy moom lañ tànn ci li ñu tudde at taxaddiyaat ñu ñëw ci at taxaddiyaat al xaarijiya at taxaddiyaat mooy défi yi nga xam ne ca bitti la ñu jóge ca bitti la ñu jóge yi jóge ci bitti nag ñaari maanaa lañ ko jox fii am na xaarija al itaar as am na yoo xam ne dañ koo tudd ci bitti ndax jógewul ci biir ahlu sunna waaye daa jóge ci ñeneen ñoo xam ne même suñ nekkee ci biir réew mi dañ koo def ci kanam ahlu sunna ngir ñu bañ a yooyu bokk na ci tashwihu surati ahli sunna bil asmaai wal awsaafi al muhtarama ñaawal deru ñi nga xam ne ñooy jéem a góorgóorlu jóg jëm ci alquran ak sunna wutal leen ay tur wutal leen ay melokaan yoo xam ne yooyu lañ leen di joxeñu biir ci biir société bi kooku ci defe yi la bokk fabrakatu tuham wa ramyuhum biha juzaafan fabriqué ay tuuma yoo xam ne dañ leen ciy tuumaat am na dëkk boo xam ne jaral na nit ñi dem nañ ba àgg ci nit ku bind ab leetar di ca araamal julli ci lenn ci jàkka yi bind ab leer rek di ko tasaare di ko séddale wane ne ñii kët ñii tuddoo nangam ci biir réew mi ñoo ko bind yàlla def suturaam akuk feeñalam bañ xam ka ko bind foofu mu bokk ca biir ñooña nag mu bokk ca biir ñooña fekk lu ci jublu woon mooy ne yàq derub ñii nañ nit ñi jóg dal ci seen kaw parce que ñoom ñooy def mel nii kon kooku musiba la moo xam ne lu lu doy doy waar la ab jullit jóg bokk ci kuréel di bindub leetar ci turu beneen kuréel bu bokkul ak sa bopp wane ne lu bon lii ñoo ko def kon war ngeen a jóg ci ñoom te fekk yow yaa ko def kon loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci istixdaamu al ilaam diddahum jëfandikoo lépp loo xam ne xeetu média la rawatina ay rajo ngir di wax ci ñooñu wax joo xam ne wax ju ñaaw yooyu ay mbir la yoo xam ne day jóge ci ñeneen ñoo xam ne dañ koy wax jëmale ko ci ahlu sunna ci seen mboolem kuréel yi ñuy tudde kuréelu ahlu sunna fii ci Sénégal euh, kenn ku ci nekk boo xëyee yaa ngi jaamaar ndox lu mel noonu loolu nag lenn rek la ci waaye du lépp yeneen yi nag taxadiyaat xaariji yi maanaam lu ma jublu ci défi yoo xam ne dañoo jóge ci bitti mooy yoo xam ne ñi nekkul ci biir lislaam ñoo koy def ñi nekkul ci biir lislaam am na def yi muy ay pakk yoo xam ne dañ koy jël di ko teg ci yoonu jullit yi ngir nañ bañ euh, jëm kanam suñ del si xool li weesu lépp ci ay défi yoo xam ne tudd naa ko li tax ma waxoon ne ñu bañ jàpp ne loolu tey rek la xew yii ma fi tudd benn boo jël bu ne boo delloo ci gannaaw da nga gis ne lu daan xew la yii may bëgg a boo ci gis bu nekk da nga gis ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tàmbali woon ba ci suñ jamonoy tey ji kon taxaddiyaat yi nekk xaarija daairatil islam buñ fàtte ne noonu lislaam dañuy suubu wépp yoon wuñ man ngir lislaam ca nam mel ak nam selle nit ñi mu bañ a jàlle noonu fa ñoom nañ fexe ba nañ ko nam mel dëgg dëgg dëgg bu ko nit ñi gisee noonu parce que bu ñu ko gisee noonu dañ ciy dugg de moo tax pexe yu mën yu nekk dañuy fexe ba lay feeñ nit ñi di ci teg seen bët day wuuteeg jawharul islam parce que jawharul islam bu feeñee dëgg dëgg dëgg jullit yi dund ko ci seen i pas-pas dund ko ci seen jaamu yàlla dund ko ci seen jom ak seen liggéey seen xam-xam dund ko ci seen jikko yu rafet ak seen jëflante bu sell melokaan yooyu su ko jullit yi dundee lislaam duutu am frontière ña nekk ci biti ñépp dañuy dugg si parce que danañ gis ne lii moo baax ci doomu aadama fii ci àdduna même boo gëmut àllaaxira sax da nga gëm ne moo baax fii ci àdduna boobu nga ñëw dugg si ci ngir lool loola nag noonu lislaam yi bëgguñu seen doom yeeg seen askan wi ñëpp ànd màbb dikk dugg si ci biir lislaam moo tax seen bëre bépp mooy lay feeñ ñi di ko tudde lislaam na doon lu ñaaw na doon lu ñaaw loo xam ne ku ko gis da nga koy ragal wala da ngay daw wala da jàpp ni ñuy musiba suñ ne jullit baa ngoog ñu ne roykat baa loolu ab jubluwaay la objectif la boo xam ne jullit yi suñ muusul tey ñu fexe ba noonu la ñuy mel ñi koy jéem ñi ngi ciy def luñ mën lu ne de eh, bokk na ci yooyu ad-da'watu ila wal muhaadanaat wal iltiqaa fi muntasaf at-tariq bokk na ci wane ne yéen daal da ngeen a war a ñëw yéen ñëpp comme que nun ñëpp ay nit la nu bokk dund sunu nite li ñuy tudde diine ñu teg ko fële am na ñoo xam ne seen seen gis-gis ci ne jàmm mën a am ci àdduna tey mooy boroom diine na bàyyi diineem ku gëmoon leneen na bàyyi leneen li nu boole muy àdduna ak bachariya ay doomu aadama lan nan jël loolu rek dund ko ah jullit bi ku ko bëgg a bàyyiloo diineem du ko mën a bàyyi lu muy dund lu nekk ca la koy waaye loolu mi ngi am tayit loolu yëmul nag tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ko loolu dikkoon nañ ne ko léegi dañoo bëgg yow suñ xërëm yéeg yii ñuy jaamu nga am yoo ciy wax bul ci waxati dara kaaba gi nun ñépp a ko bokk kaaba gi yow da koo gëm nun dañ koo gëm nuy ànd di daje foofu di fa jaamu ngay jaamu yàlla ni nga ko bëggee nu nuy jaamu yàlla ni nga ko bëggee suñ fa jógee nga bàyyi nu nuy jaamu suñuy xëram yow itam nga dem saw yoon seetlu la neex nga dem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xalaat ci loolu ci biir xalaat yi borom bi tabaraka wa taala ne ko la law tudhinu fa yudhinu ñii liñ bëgg mooy nga wàcc ñoom itam ñu wàcc maanaam nekkatuñ ci diine yow itam nekkatoo ci diine moo tax borom bi waxaat ne ko wa in kaadu la yaftinuunaka an illadi awxayna ilayk xaw nañ laa dugal ci fitna ba nga nar a bàyyi li ma wàcce ci yow loolu mooy lan mooy woote ci tawxid li taftari alayna gayra ngir nga duural nu lu bokkut ak leen wàcce ci yow fii wax ju tàng la yàlla di wax ko yonentam ñii wattu leen ndax xaw nañ laa dugal ci nga nuy duural di fi bàyyi li nga xam ne moom laa la wax yu wa idan la taxaduka xalila loolu soo ko nangu woon rek ñu nangoo doon sa xarit tey maanaam bàyyi nga tudd yi ñuy jaamu tey doon ay xiram waxatoo leen ne leen lii ngir ngeen am tawxiid da ngeen koy bàyyi su fekkoon ne bàyyi nga loolu waxatoo ko rek la taxadu ko xalila kon nga daal di doon seen xarit daal di doon benn kooku mooy tanaasul bi waaye nag ndimbalu suñu borom tabaraka wa moo tax mu ne walaw laa an laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila su dul woon ni maa la dëgëral tey kon de da nga xaw a jàng tuuti jëm ci ñoom ndax lu tax ñu wax ko loolu mu toog di xalaat moom alayhi salaatu wasalaam dañ ko joxe proposition boobu daf cee xalaat rek ci la ko yàlla di yedd nii fi saa si da leen waroon daal di tontu ne leen loolu mënta nekk mu ne idan la azaqnaaka difa alxayaati wa difa almamaati thumma la tajidu laka alayna nasira ki bokk na ci ay yi gën a tàng ci yàlla jaamaarloo ko yonentam di ko ko wax mu ne ko soo jéngoon jëm ci ñoom danaa la teg mbugal mum adduna ak mbugalum àllaaxira tey doo gis kenn ku la mën a dimbali kon mbir mi woyefut lislaam nag laa jutin mu tanaasul nag di wàcc lu ñu wax nga naa bàyyi la ma nekkoon ñëw fekk si ci ngir bëgg a juboo déedéet nag lislaam du noonu bokk na ci yi jëfandikoo istifzaazu almuslimina wa jarruhum ila xawdi maarika gayri mutakafia xëcc jullit yi jëmale leen ci taxa def njaaxum taxa def def loo leen ay njaaxum xëcc leen ba dugal leen ci guerre yoo xam ne attanuñ ko mënuñu ko kooku ci musiba yi ci la bokk moo tax léeg-léeg musiba di am dessin yi ngay dégg ak wax yu ñaaw yi ñuy wax di ko jëme ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yépp ay fiir la yoo xam ne li ci bëgg mooy jullit yi nañ nañ wane ay melokaan yoo xam ne ñi nekk Occident fépp dañ naan ñii daal ay nit ñu yeewu woon lañ ñu xamul dara lañ ñoom daal seen réaction toujours daal mooy rey ay doomu aadama taal ay tabax def ay nangam yu mel loolu dañ ci bëgg ndax melokaan boobu soo amee ba siiw ci jullit yi rek nit ñii nii lañ mel ñoom lañ bëggoon am nañ ko waaye su fekkee ne am ngeen lu ñu mën a def lu nekk ngeen xool la ca nekk lu positif ngeen doxe ko noona la ca doon lu lay lor ci sa jikkoog sa melokaan wala muy lor image u lislaam nga wattandiku loola loolu su amee yow la seenu fiir jàpput waaye lu dul loolu fiir ga nag day jàpp moo tax mu ne wa in kaadu la yastafisuunaka min al ard li yuxrijuuka minha dañ la bëgg a istifzaas li ñu tuddee gëf gëf mooy xëcc la nga topp ci dara ba defe ne yaa ci nekk boo génnee ñu jàpp la dal ci kaw bokk na ci yooyu siyaaqatu l ittihaamaat wa ixtiraacu al awsaaf al munafira mooy sàkk ay tuuma yoo xam ne dañ koy tër teg ko ci kaw jullit yi te fekk ñoom defuñu ko Quraysh bi nga xamee ne dañoo gis ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woote te Màkka béréb la boo xam ne arab yëpp dañ fi ñëw maanaam xeeti arab yi fu nekk lañuy jóge di ñëw Màkka te moom Màkka la nekk te ñoom buñ dikkee faaw daañu laajte yonente bi ñu dégg fu mu nekk kon foofu waa Quraysh seeni yéefar am nañ liggéey bu rëy mooy yàq derub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñii ñëw buñ dikkee duñ fa jaar wala liñ leen di wax sax duñ ko gëm moo tax pexe mu ne jëfandikoo nañ ko bokk na ci ñi jiitu seen kàngami projet yi délégation yi dañ leen daan dogale ci bitti màkka di leen wax bu leen ko déglu waaye ñoom it fa leen yàlla nattoo mooy seeni wax amul benn cordination bu dox ci diggante bi dañ ñu daje ko kuréel fële ñu ne leen wattu leen ko ne kooku bu ngeen demee ab jabar la ñu génn daje ñeneen ñu ne kooku de shaa'ir la benn poète la boo xam ne moom way rek lay def ñu génn daje ñeneen ñu ne ab dof la waaw li ku ko wax nit yow looy wax da nga ne ah man de kooku xanaa ne faaw ma gis ko ginnaaw ñii dañ ne moom ab dof la ñii nee nañ poète la boo xam ne day way ñii nee nañ ab jabar la yooyu mënut a daje ab dof mënta mënta way way yoo xam ne way yu baax yu yu yéem kenn loolu mënta nekk loola indi na contradiction bu mag ci seen biir boo ko xoolee day tolloog jëfandikoo média pour yàq ab der léeg-léeg mu am am na jëmm juñ fi doon yàq ab deram ci fonction bu ñu ko doon bëgg a jox eh, ay noonam ñeen ñi dañ ne ab terroriste la ñeneen ñi ci des ne jaaykatu drogue la maanaam ku ëppal ci diine la ñeneen ñi dañ ne ku teengal ci wàllu diine ñeneen ñi day jaay day jaay dorog loolu dañuy yor seeni xel xam nañ ne loolu nit ki mën naa mën naa nekk ci diine ba teengal ci ba jàpp ne ku juum sax tàbbi nga sa waro wala doon nga bi yéefar ba noppi moom wëlbati nga jaay dorog ñeneen ah, contra contradiction yu mel noonu loolu moo tax waa Quraysh ñi nga xam ne dañoo am xel naa eh, arab yi jóge ci bitti dégg wax ju juyoo ju mënta ànd jooju loolu daf leen a poussé ñu ñëw xool seet si ko moo tax borom bi innakum la fi xawlin muxtalif innakum la fi xawlin muxtalif yéen kat seeni wax bokkul ñii lii lañu wax ñii lii lañu wax lii la te yooyu yëpp mën na ànd dajaloo ci kenn loola nag moo leen xëcc ñu ñëw di ko seet si benn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàññe na terrain bi ci wàllu communication ndax loolee ñu wax tax na ñëpp jóg bëgg xam ku mu doon ku ñëw ku nekkee gis nga lu wuute ak liñ la waxoon ñaareel ba dal siiw nag ndax lañ doon def propagande bi ñu doon def moo ko siiwal nag foofu am nañu doon ñëw te dégguñu ko sax foofu waaye bi ñu leen dogalee ne leen am na ku fa nekk koo xam ne boo ñëwee da nga fekk ne nangam ak nangam ak nangam la mel moo tax borom nag ba ñëpp dégg nañ ko foofu ku ñëw ku ne daal bëgg ngaa gis waajooju ba xam ku mu doon lañ la ca waxoon ba nga ñëwee gisoo ko loolu moo tax giir yi woon ci àll bi yëpp ak délégation yi saa buñ ñëw bu ne benn ñoom ñëpp ñu ànd dugg ci lislaam wala kenn dugg wala ñaar dugg loola nag la Quraysh dem ba na attanatuñ ko ca loola lañ forcé nag nekk kii daal tum xëy ba mu génn dëkk bi wenn yoon ñu noppalu ci moom ndax fii su fi nokkee nit ñi bu mënuñoo bañ a ñëw màkka te suñ dikkee dana dajeek moom te suñ dajeeg moom danañ dugg ci lii muy woote kon euh, lu mel noonu ba léegi ci suñ jonni tey jii mi ngi am mooy bépp tuuma boo xam ne jàpp nañ ne bu buñ ko waxee ci yow mii nga xam ne da ngay góorgóorlu di tasaare lislaam danañ fexe ba loola yàq sa liggéey tuuma bu mel noonu mën nañ ko fabriquer mën nañ ko bind ci yow mën nañ ko wax ci yow waaye nag saafara sa mooy eh, li ñuy wax ne buñ la séddee ci aw gaal yi itam na sédd ba yem ci sédd waaye bu la ci kenn ngay nga di ca lekk bu ko nangu bokk na ci yooyu itam xalqu al adawaat al taaifiya wa tasjiicuha bayna sufuufi al muslimin lislaam dafa bari ay kuréel kuréel yi léeg-léeg ay juuyoo ci ay masala da ciy am masala yooyu mën na jëm ci pas-pas léeg-léeg mu jëm ci sulóob léeg-léeg mu jëm ci leneen léeg-léeg mu jëm ci yeneen loolu nag ki nga xam ne dafa jóg di xeex lislaam loolu dafa bëgg mu dund bëggul jullit yépp àndandoo nekk benn bolom day jéem a dox ngir ñooñu nañ gën a soree moo tax ñu ci wéetal day wax ci ñu ca des bu wéetee ci ñële wax ci ñeneen di yebal ay kuréel ci àdduna bi sax di ngir di yàq liir naa benn rapport boo xam ne benn benn tubaab moo ko bind xam naa kooku dafa dem ba mu yàgg mu mer mënatu muñ lenn li wala mu doon ku jëful sax nag faf parce que rapport bi bu doy waar la ci loo xam ne noonu lislaam dañ koy jëfandikoo ngir di jaxasee jullit yi tey maanaam loolu ñuy wax fas tey sikki mi euh, dañuy wax di nit ka daa jóge fa la ñëw fekk ñaari silmaxa ñu nekk ci ab toolam di sàcc mbool gisul ñoom ñaar mu ñu nekk fa mu ñëw fekk leen ca loola ñuy lekk ñuy lekk ci tool mu toog ba mu yàgg mu jël giilinu sawara bi laal ko kenn ki moroom mu ne moroom ji yaa ngi may lakk rek mu ne ko déet man kay bi ma toog lëkkuma kenn <coughs> mu toog nes tuuti mu jël ko laal ko keneen mu ne ko nee naa la lëkkuma nga di ma lëkk mu toog ba mu yàgg mu laalaat ko keneen ki ki ci des daal koy song ñuy xeex ñoom ñaar mu taxaw di seetaan léeg-léeg mu jël yar bu sax dóor ko kenn mu ne ko yow dóoruma la bu yar nga di ma dóorub yar mu dóor ko keneen mu wax noonu mu duma leen duma duma duma ci lu mel noonu loolu léeg-léeg day dal julli bi dañuy dikk fekk ñaari kuréel yoo xam ne yàlla xam ne suñ leen bàyyi woon ñuy dund d'accord ak li nekk seen diggante ci ak jooyoo ay siècle dund nañ ko mosuñu am problème wala diir bu yàgg dund nañ ko mosuñoo am problème keneen lay dugg si ñëw ne yéen day su ngeen wëttuwut ñii li ñuy fexe ci seen kaw lañ jëm loolu dégg na ñu ngi koy wax ba convaincre leen sax dégg nañ ko indit ñuy wax naan gars yi nekk fii ci dëkk bi wootul danañ ñëw fii toj suñu xabru yi danañ ñu defal nangam danañ defal nangam loolu luñ leen dikte la ñu di ko wax waaye wóor na leen ne ñi ñu xam ñi bokk ci seen réew mii di ci dund juddoo fi màgge fi xam li fi xew dëkk ci biir dëkk yi comme ni fi ñëpp dëkkee di tabax te la ñuy tabax bëgguñu ku ko toj xam ne ñooñu duñ mës a jóg ñoom di toj xamuñu kenn waaye nag am na ñeneen ñu leen ko dicté ñoo xam ne loolu seen intérêt rapport bi waa ji lu mu ciy wax mooy tomb boobu may wax sax fi lay waxee mooy am na yuy xew ci musiba yu mag yoo xam ne day xew ci benn kuréel ci biir monde islamique bi su xewee rek am na ñu ñu ko war a tuumaal fi saa si su ko defee ñooña ñooy daal di lor ñii dañ leen ciy daal di tuumaal ci Égypte tudd na moom bindkat bi nee am na ay église yoo xam ne dañ leen a taal ñu daal di jàpp ne frère musulman yi ñoo leen taal wala ay salafit ñoo leen taal waaye biñ gëstu dëgg dëgg dëgg gis nañ ne ña taal ci boppam du ñii du ñii waaye ña taal xam nañ ne buñ ko defee ñii doog lañu koy ji Soudan mu tudd fa ay xabru yoo xam ne xabrub diw xabrub diw xabrub diw yooyu dañ leen a toj ab xeex xaw na caa am diggante kuréel sàngam ak kuréel sàngam ndax dañ leen toj rek ñu nit ñi ko toj mu ne su fekkoon ne ak dalu xel ak seenu nit ànd ak seen sago xeex yu mag ak deret yu tuuru mooy am foofa te fekk ña toj xabru yi ci boppam ñeneen la ci biir Irak ci boppam mashahid yooyu nga xam ne eh, ay aalul bayteeg ñu mel noonu ñoo fa nekk dañuy jóg dem toj ko su ko defee ñeneen ña ko toj mooy sunnit yi parce que dañoo contre chiite yi su ko defee xeex ba daal di taxaw seen diggante deret di tuuru te fekk ñi ko toj ñeneen la ñoo xam ne du ñii du ñii dem na ba tudd ci yoo xam ne ay béréb yu ñu jegale léeg-léeg ab groupe jóg boo xam ne dañ naan di groupe fanatique la ay jihadiste la dañoo toj toj nañ statuer yàq nañ xeré fekk ñooñee ci seen jëmmi bopp ña leen jiite dañ leen faa indi ngir ñu def lool parce que suñ ko defee danañ yàq darub l'islam ja nit ñi danañ sori l'islam ko defee ba seen mission jeex dañu leen gis kenn du leen dégg lii doon xew Mali muy musiba mu mag moo xam ne bi mu àggee ña doon jiite yëf yi kenn gisatu leen fi mu nekk tur yi ñu doon tudd nga xam ne ñoo doon woote lañ doon tudd ay am diine ak ay daawa jihaad wala xitaal tur yi kenn xamul lu mu doon ñooñu bi yëf yi jeexee dañ ne fes kenn gisatu leen mission lañ fa doon def bu jeexee dem nañ ci seen yoon taal fa nag musiba mu continuer di dem nekk conflit boo xam ne diggante jullit yi lay dox ñi leen bëgg a xeex am fuñ mën a jaar ba xeex leen ñu bëgg a yàq seen der mën koo yàq ba mel ne suñ réew yi yépp li fi waroon a dox sax dootu mën a dox nit ñi guddeeg bëccëg ci la ñuy bind ci la ñuy wax ñi naan ñi ngi fi ñi naan nekkuñu fi danañ agsi duñ agsi coono bu metti boobu ay fit na la yoo xam ne lu ci baree baree bari du ma wax ne lépp de waaye lu ci baree bari ay nit ñoo ñëw ji ko fa mu nekk ci diggante jullit yi ñu koy ji ñaate te fekk kenn ci ñoom kon loolu lu mat a bàyyi xel lu mat a wattandiku mu des nag euh, danañ jéem a gaaw tuuti ndax su une heure jotee insha allah ba une heure et quart ñu mën a taxaw euh, taxawaay bi jullit bi war a am nag ci défi yi yépp ñu dégg la ko tàmbalee ci yi jóge ci boppam moom yi jóge ci société bi muy dund ak yi ko jóge ci bitti am na ay mbir yoo xam ne mooy li war jullit bi bi ci jëkk moo di iltizaam as sabr wa jullit bi faw mu muñ faw it mu sax ci principe am sax li nga xam ne mooy dëgg wërte jeng mukk ba bàyyi ko borom bi tabaraka wa taala dafa wax yonentam ne ko wattabi maa yuuxa ilayka wasbir xatta yaxkuma allah wa huwa xayrul xaakimin nee na ko ak luñ mën a wax bu la kenn mën a génne ci topp li nga xam ne moom laa wàcce ci yow wattabi maa yuuxa ilayka kon foofu la mbir mi nekk buñ la mën a tooñ ba tax yow nga jóg ne damay tooñ kenn buñ la yàqal ba nga ne damay yàq kenn buñ la saaga ba nga ne damay saaga ndax saaga du sa habitude yow jullit kon àndal sa xel mu dal neel tekk buñ la yàqaloo buñ la fekk ci lu jubut buñ la fekk nga di ko wax buñ la fekk nga di ko def àndal ak sa dal te muñ nag xatta yaxkum allah xamal ne yàlla mooy atte te léeg-léeg nag mu àtte fii ci àdduna nag mbir yi leer borom bi tabaraka wa taala nee na wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun nee na muñal te bul jàq bul tiit bul jàq bul tiit pexe yi noon yi def nee na amul solo moo ko xaytul ankabut ñooyam lëndu jargoñ nam ñàkke solo pexe yooyu lu mu rëy rëy moo ko gën a ñàkk solo ci kanam suñu borom tabaraka wa taala ci jullit bi jaar ci siraatul mustaqim te dëgër ci diineem te jub jub googu lu ci mën a bàyyi xel borom bi nee na wa atiu allaha wa rasulahu wala tanazaru fa tafshalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa sabirin nee na topp leen yàlla akum yonentam kon sabaat alxaq ñëw na lu mën a xew toppal yàlla akum yonentam waaye bu leen xëccoo bu leen juyoo bu leen ŋaayoo fa tafchalu su ngeen ko defee da ngeen di échec da ngeen di yàqule seen kàttan day dem waaye mu teg ci ne muñ leen te xam ne yàlla ki muñ la àndal kon tomb boobu tomb bu am solo la as-sabr wa sabaat isbiru wa saabiru wa raabitu wattaqullaha laallakum tuflahuun ñaareel ba mooy taqwiyatu silati billah wa muraacaatu mardaatihi fi amrihi wa nahyihi wa qadrihi nit ki digganteem ak boroomam na fexe ba mu rafet ba mu sell li yàllay santaane lu ca mën na ko def li yàlla di tere na ko bàyyi na gëm dogalu sunu borom tabaraka wa taala ne yàlla lépp lu mu def fii ci kaw suuf lu gën la mën naa metti nag waaye lu gën la kon jullit bi faw mu defar digganteem ak ci ni ma ko waxe woon ci gannaaw jiital farataam yi teg ci naafilaam yi rafetal jëme ci jaamu yàlla yi di wax lu baax di ko def foo fekk luy bëgg a yàq nga defar ko lii mooy melokaanu jullit jullit bi na dem ba àgg ci ba xam ne jëflante wut ak doomu aadama yi boroomam lay jëflanteel jaamu yàllaam ya muy def digganteem ak boroomam te kenn fekkewu ko na gën a rafet jaamu yàlla yi muy def doomu aadama yi di ko fekke noonu la ñuy jëflante suñu borom tabaraka wa taala ki dem ba àgg foofu noppalu na ci doomu aadama yi ña koy tàggat ña koy xas la yemale kenn amul ci ñoom soxla yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala jàpp ndala loolu yëpp ñetteel ba muaalajatu amraadil qulub feebari xol yañ tudd mëni su ko bañ a faj nuñ koy faje mooy nit ki bu mu nekk ci société bi jàpp ne moom ku mat la bu defe ne ku mat nga kenn muccut muccuma moom mii muccut kee muccut keneen muccut seytaane ngi ci yoon bi di teg défi yi te ku gëstu sa bopp da nga gis ni am na ci loo dese wala am na ci loo yor nuñ koy faje bil quran bil quran mooy bu jëkk al quranul jàng ko settantal aayaam yi wattandiku lépp loo xam ne lu alquran bi tere la jàng ko ngir tuyaaba ja jàng ko ngir jëfe ko jàng ko ngir soppi jikko yu baaxul ya waaye ñu faj feebari xool yi ci istixdaaru azamatillahi azza wa jal wal wuquufi bayna yadayhi jullit bi nay teewlu taxaw gim nar a taxaw ci kanam boroomam ëllëg ñu dekkal ko moom dong boroomam di ko xisaab ba mel ne moom rek la mas a bind taxawaay boobu nekk ci suñ kanam te bis bu nekk nu di ko gën a jege nag bis bu ne nu di ko gën a jege te kenn xamut kañ la wala fan la wala nan la loolu jullit bi koy teewlu feebari xolam dana mën a saafaraw waaye saa buñ ko fàttee rek de feebar yi day gën a yokku wa bil qisasi saabita bokk na ci saafarawukaayu feebari xol yi mooy jaar-jaari ñu baax ña yonent yaag saalixoon yaag saxaaba yaag taabiroon yaag ñi nga xam ne dañoo jaaroon ci siraatul mustaqim booy jàng seeni jaar-jaar da nga ci jële yoo xam ne dafay dëgëral sa xol moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi doon ko nettali yaxe woon ci yonent ya ko jiitu lu tax li nu bi bihi fu'aadak ndax sa xol mën a dëgër ngir nga mën a dëgër kon xisas yooyu ci yi mën a musal ci la bokk war raqaiq fawwit bunt bi nga xam ne mooy yi tooyal xol nga xam ne bu ko nit ki jàngee dana xam moom fa mu ak la ko lañ ko rawe ni mu baree xisas yu mel noonu mu di ko bàyyi xel fu mu toll fu nekk yooyu danaa ci faral di joxe misaal boo xam ne raqaiq yi ñu ko bàyyi dañ ko war di jàng dañu war a dellu ci tasas yi ñu baax ñu jëkk ña ñu baax ñu jëkk ña bokk na ci seeni melokaan mooy seen lépp daa lañ bëgg mu feeñ ba mu def seen jaamu yàlla dañ ko daan nëbb luñ ci mën a nëbb rek dañ koy dëbb li nga xam ne seeni naafila ak seen yëfi bopp la yooyu dañ koy dëbb ku ci yàlla may martaba sax ba nga gëm ne yow mi àgg nga ci soo ñaanoon dara mu nangu sa ñaan boobu doo bëgg ku ko xam kenn ku ne ci yéen defe naa ne dégg na qissatu al iskaafi muy uude bi nga xam ne ca jamonoy taabeewoon ya la doon dund al imam muhammad ibn al munkadir moo ñu koy nettali téere bi mi ngi ci xilyatul qissa bi mi ngi ci xilyatul awliya bu abu nuaym mi ngi ci itam sifatu safwa bu ibnu jawzi nee na dañoo toog menn at ci madina ñu bekkoon li tax ma ne la yu mel nii am na solo ay darsu lañ ciy jële ne Madina bekkoor tawul te xam nga Madina dëkku bay la dañuy bay tàndarma bay la nee na ñu toog tawatul ñu ne nañ def salaatul istisqa julli ñaan mu taw julli ñaan mu taw mooy julli mbaaw naa ñu génn julli nee na tawul ci ëllëg sa nee na ci ëllëg sa tawul moom mi nettali al imam Muhammad ibn al Munkadir nee na loolu moom mosu koo fàttaliku ci taarixu Madina jullit yi amul bekkoor génn julli te tawul nee na gi yoon def nañ ko ñetti yoon te tawul ne benn bis mu xëy si ci jàkka ji di julli si fajar lu jiitu nodd di jot nee na bi ma duggee ma gis nit ku ñuul ku toog ci gannaaw benn poto ci biir jàkka ji tàllal ay loxoom di ñaan nee na ma taxaw ci gannaawam ni ko déglu mu naan yàlla ma sa jaam yi yàlla su jaam yi nga xam ne ak jur a ngi ci seen biir ñu ñàkk a ngi ci ay béykat a ngi ci nangam wàcceel sa ndox mi nee bi mu daataan wàccee loxo yi ma dégg asamaan si di yëngu ne bi ñu daataan taxawal julli rek taw bi tàmbali nee na ma daal koy làqu ba gisuma nee na ma wax ci saam xel ne kii de danaa fexe ba xam fu mu ma jéem koo xam nee ñu julli ba noppi ma bëgg topp ba xam ci gan kër la jëm leneen bi ma génnee ndox mu bari man ni ma ragale ndox mi moom mu xuus rek dem faalewut génn yi dàllam gàddu yi dàllam moom dugg ak ci sagaram dem nee na jotuma ko ne ca ëllëg sa ma fexe ba xam fu muy jullee ne bi mu jullee ba noppi mu génn ma topp ci moom daal di ko xool ba mu dugg ci kër nee na ma ne waaw kay kon fii la dëkk bàyyil ba yoor yoor ma seet ko nee ma dem ba yoor yoor ma ñëw nuyoo ci kër gi dikk gis ko ndeke mooy wuude bi ci kër gi di defaral nit ñi seen i dàll ak seen yëpp gi mel noonu nee na ma ne salaamaaleykum nee na ma ne ah abu fekk xam na yow kay bu dee da ngaa bëgg a defar say wala nga soxla dara da nga maa war a yónnee woolu ma man ma la waaye yow war ñëw di defar si dàll nee na ma ne ko déedéet loolu indiwu ma nee na ma toog mu ne ma lu la indi nee ma ne ko damaa gis démb ci fajar bi nga tàllalee sa loxo yi di ñaan bi nga ko daataan wàccee rek asamaan si wàcc ma bëgg xam yow yaay kan nee na mu mer mer moo xam ne li ma wax xatta anta xatta ba yow sax ba yow sax ba yow sax nee na ma ragal ne li ma ko wax fitna la ma ma daal di rocc ko ndànk dem ne bi ma jekkee ba ngoon daal ma fàttaliku ma ne kii tooñ naa ko war na maa dem jéggalu ko nee na ma ñëw dikk ci kër gi bi ma ñëwee ne leen waaw ana wuute bi fi nekkoon nee ñu ne waaw xanaa ak xuloo daa xew sa diggante ak moom wala dara yow de da nga fay jógee rek mu boobu ay bagage am dem ñi yónnee ci Madina wër wër kenn xamul fu mu jaar mu dem yoon lu ko naqari mooy martaba bi ko yàlla may ñaan na mu nangu kii ñëw ne ko gis naa la nga ñaan mu nangu loolu ko naqari ba tax mu gàddaay génn Madina dem yoon waaw xoola ñu toll fii sëñ bi ak noonu fan lan toll nga xam ne soo defoon dara lu tuuti tuuti da nga bëgg nit ñi yëg ne yow yaa ko kon dafa mel ne nun adduna ak ak ak lu jëm ci adduna ak lu jëm ci mbaax ak diine safaan bi moo xew tey li nga yor ci xaalis lu tuuti tuuti da nga koy nëbb bu feeñoon sax nga ne lii dañ ma koo lebal wala diwa ko moom wala nangam bu dee jaamu yàlla gën nga bëgg ne lii moom mi ngi nii bu dee aje nga nga ne nangam yoon de aje naa ko bu dee nangam nga ne sama xarum tabaski ngi ci téléphone ci télé bi xool leen ko ñi ne xar muy jar cinq cent mille day ngi ni ñi ne xar muy jar un million ngi ni ñu génne ko ba doomu aadama yi gis ko koo koy defal borom bi tabaraka wa taala yii nga xam ne moo nekk ci xol yi li fekk saafara wuñ ko ci suñu bopp ba mu set wecc lu bari ci suñu mbir day gàllankoor asalafu saalix lii moo doon seeni melokaan sekkareel say jaamu yàlla say def lu baax ci diggante jaamu yàlla sa kem kàttan li ci des nag lu aju ci wàllu adduna bi mel noonu nga dund ko comme ni ko doomu aadama yi dundee parce que kenn nga ci ñoom moo tax mbaax yëmut nekkul fenn nekkul ci askan wi nekkul ci métier ma nekkul ci nangam nekkul ci nangam kon ci sellal ga rek ca la dellu bokk na ci saafara yooyee maanaam ci taxawaay yi jullit bi war a taxaw mooy ñeenteel bi muxaarabatul jahli bi nashri al ilmi al qaimi ala al kitaabi wa sunna faw ñu xeex réer boobu nga xam ne ci défi yi la bokk xeex ko ci tasaare xam-xamu alquran ak sunna te yar ci doomu aadama yi daaray alquran yi buñ ñu yem ci njàngum alquran mokkal ko rek dem nañ jàng alquran waaye nañ yar gone yi ci alquran ak i jikkoom yar leen ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa yi nga xam ne mooy école publique yi naa danaa di wax ne njàngoom diine gi ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye ndaw yi nañ leen yar yar boo xam ne yarub diine la nañ def ci ñoom pas pasu fuglu seen borom ak bàyyi xel moom mooy tax ëllëg doomu aadama jin bëgg mu doon sénégalais bu bees bi day doon koo xam ne bu ñu ko contrôlé wutit mu contrôlé boppam am na lu nekk ci biiram loo xam ne su wéetoon fi béréb mën a jalgatee du jalgati mukk lu tax ndax looloo koy contrôlé ku mel noonu lañ soxla tey te njàngum diine moo ko mën a def ci doomu aadama juróomeel bi muxaarabatul bidaai wal xuraafaat bi tarbiyati shababi ala al islaam as saxiix al musafa min ash shawaib faw li ñu tudde ak li ñu tudde ay xuraafaat muy njaxas yeeg njabar geeg xar nga foofu yi ci société bi nga xam ne yépp yuy delloo doomu aadama gannaaw la di delloo ab jullit gannaaw te yépp ñu koy askane lislaam ak suufe geeg dese geeg ñàkk jàng geeg yu mel noonu faaw ñu bëreeg moom mu génn ci suñ société bi ngir nu mën a départ jëm kanam juróom-benneel bi alihtimaamu bi jaanibil qudwa ittewoo royteef royteef wa tarsiix daaim al iqtida bi ahli al ilmi wal amal baidan an al xuluwi wal jafaa faw société bi am ay doomu aadama yoo xam ne ci biir liggéeyub lislaam ay royukaay la ñuy doon nit ñi mënuñoo nangi faawa kenn ku nekk jaar sa yoon bopp faw ñu boole liggéey yi faw am ay nit ñu baax ñu jub ñoo xam ne li ñuy jàng ci téere yi dañuy gis ñi koy dund loola mooy tax ñu xam ne li ñu jàng du ay léeba ki lupp waaye lu doomu aadama mën a dund ba tey jii la li ñu tudde ak xudwa muy royukaay mooy yarukaay bi gën a gaaw ci yar doomu aadama ginnaaw da ngaa gis muy def di gis muy wax nga ko moom ngay def lu mel ni la muy def di wax lu mel ne la muy wax jeex na dañuy daal di baax su fekkee ku baax la safaan ba it nag su amee mooy am ku dëng nga topp ko gis ko muy def ngay def muy wax ngay wax da ngay daal di dëng comme mooy li xew ci ndax biñ demee ba xudwa ci biir l'islam boo xam ne dafa teew nit ñi di ko gis di dund ak moom guddi ak bëccëg di jullee ak moom di bokk ak moom di lekk di def yépp mën a roy ci moom léppam su manqué xale yi fu ñuy jële royukaay mooy ci li ñuy seetaan média bi li ñuy liir li ñuy déglu foofa rek lañ ko mën a jële moo tax da gis xale boo xam ne boo jëloon benn équipe bu football ci réew ma gën a sori di ko ko laaj mën na laa limal seeni tur kenn ku ci ne sax mën na laa wax fa muy taxaw ci biir terrain boo ko laajoon saxaaba yonent bi wala kilifa yu baax yi ci biir réew mi du la ci mën a waxal ñett wala boo ko ne kuy diw fu mu dëkk wala ban dëkk la dëkk ci dëkk yi danaan la rek dégg naa ñu koy wax wala yu mel ne rek amul ci moom dara kon nag royukaay doon na loo xam ne mënta ñàkk ci askan su amatul askan wi day réer maanaam feneen la jëm juróom-ñaareel ba moo di nashru mabadi al wasatiya bayna al jiil as saaid wa muaalajatu amraad alxuluwi fi lfikri wa tawajjuh faw li ñuy tudd juste milieu muy ak ak yem ba a ëpp bañ a yées faw ñu tasaare ko ci biir askan bi jàngal ko ndaw ñi yar leen ci ba ñu xam ne diine du mooy teengal teengalu kese loolu du diine waaye diine yëpp la ak wax ak jikko ak pas-pas da def nit ñi gis waaye am na ñoo xam ne mën nañoo faram fañ nekk defuñu waxuñu amaluñ kenn njariñ lu dul rek wax ju teeg ju dégg daay yoo xam ne su waxee ba daaneel da ngay jàpp ni kii moom jël jaasi rek moo ci war a teg xeex ak doomu aadama yi ngir delloosi leen ci diine lu mel noonu faw nag ñu xeex ko ci askan wi waat ñi ëpp bañ yem ñu suufe ba àggu ñu ngay yëkkati leen ñoom itam ñu yéeg ngir ñu mën a daje ci digg doomu kooku nga xam ne moom la lislaam di woote juróom-ñetteel ba iltisaamu lhudui wa dabti nafsi wa adamu listijabati li ahli listifzaz fexe ba nit ñi ñu régler seen bopp ba ku ñëw bëgg laa dugal ci loo xamul bul ci nangoo dugg li ñëw te leerul ci sa bopp xamoo lu mu doon nekkoo ci jamono yi lu ñëw nga dugg ci loo xamul lu mu doon bu ca dugg loo xamul bul ca wax loo xamul bul ca def doonal ki dàqa wattandiku ci doomu aadama yi soo gisee loo xamul di nattable wool koo jàpp lii xam na ko nga def waaw ndax nangam ak nangam xam nga ca dara lu mu ca xam wax loolu boo ko dee def doo gaaw a juum te it ki ñëw di la tegal ay fiir ngir nga bëgg nga tàbbi ci ngir nga def jëf yoo xam ne danañ ci mën a yàq sa der wala ñu yàq ci derub lislaam téyal sa bopp ba loolu bul ko def même bu lor dalee ci sa kaw àndal ak sa sal àndal ak dal xam ne lenn lu nekk dafa am nuñ koy saafaraa ci ak dal waaye téel téel wax ju bari xaste saaga dugg génn loolu loolu lislaam te itam fajul dara juróom-ñeenteel ba assaayu ila jamci lkalima wa lammi chaml walqadaai ala asbaabi lixtilaafi waltafarruq jaadu na ci jullit bu nekk muy dox saa bu xëyee ci luy boole kàddu jullit yi lu leen di bennale lu leen di jegeele lu leen di delloo siwaat bañ del siwaat jaar ci siraatul mustaqim lu gën ci luy boole jullit yi bal li mën a boole jullit yi moom dong mooy alxuraan ak sunna kese yi ci nit ñi dolli nga xam ne kenn ku ne yaa ko ci dollil sa bopp wala sa kër baay dollil ko ci wala sa kuréel dollil ko ci yooya yor ko ci sa kër baay wala nga yor ko ci sa kuréel bu dee sa digganteeg jullit yi li la booleeg ñoom mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi loolu mooy alxuraan ak sunna loolu dong nag moo mën a boolee jullit waaye li feeg daraa ngi ci loo xam ne dama naan lii man sama kër bàyyee ko moom bu ma ñëwee sëñ alfahim ne ma ah man it daa am lu jóge sama kër bàyyi su ko defee sëñ bay ne ma ah lu nit day sama kër maam daraa nga ko moom itam kële ne ko man itam de nangam kenn ku nekk yor sa mbuus andi ba koo tasaare ci géew su ko defee lu muy jur mooy kenn ku ne dana am ñu la topp ñooñu mën nañ noo topp ne ah waaw lii de amul benn problème parce que alpha mbay say géey jóor sànnamoon ñoom ñëpp ay xarit lañu kon mun ñëpp daanaka ñu nuy topp benn lañu waaye yéen ci seen bopp yéen yi dem ba mu yàgg ngeen jur fanatisme boo xam ne day dem ba su ma dajeeg alpha du ma ko nuyu ndax damay jàpp ne yóbbu na mbooloo kon faaw di xëy di dox ci luy jegeele jullit yi ngir delloo leen ci alquran ak sunna ndax bennoo googu mën a am kooku ab liggéey la bu rëy boo xam ne war des na cee bi fukkeel bi mooy at tansiqu bayna ahli daawati wal islah fi l baramij al jéem a coordonner activité yi nga xam ne ñii liggéeyal wooteeb lislaam ñi ngi koy def moo xam ci seenum njàngale la teg ay programme yi ñuy bokk di jàngale moo xam ci seen lu jëm ci wàllu xam-xam bu ñuy tasaare moo xam dafa jëm ci wàllu ab liggéey boo xam ne dañ koy ànd di ko liggéey fexe ba coordonné ba taxawal loo xam ne day liggéey ci anamu association di liggéey ci anam goo xam ne bu organisé wu la gu leer la goo xam ne lépp dafa feeñ dara luy lëndam wala lu ñuy ci loolu jàpp naa ne sunum réew soxla na ko fi nu toll fukkeel ba ak benn mooy al ihtimaamu bi fiqhi al maqasid wa fiqhi al maalaat fiqhi al yoo xam ne lii su ma koy wax borom xam-xam yi yëngu ci terrain bi ñoo tax di wax sharia dafa am ay jubluwaay yoo xam ne moo ko tax a jóg yu muy jàngale di ci yar nit ñi maqasidu sharia am bunt bu ñu tudde fiqhul maalaat yii ku ko xamut mën ngaa def njaaxum bu mag ci diine te fekk defoon nga ne dangay defar mooy lislaam ay atteem bu muy def bu ne am na lu tax atte boobu jóg su fekkee xamoo ko mën ngaa jàpp ne lii moom jëm ci kese rek moo ci am importance su ko defee doo xool ndax lii su ma ko defee dana jur li taxoon liy jógam déet wala day jur safaan bi su fekkee day jur safaan ba de loolu war a doo koo def même digle lu baax ak tere lu bon nga xam ne ci ponk yu mag yi la bokk su la wóoree ne fii nga nekk boo fi diglee lu baax wala nga tere fi lu bon kooku mën naa jur fitna ju yées la ñooña doon dund su boobaa digle lu baax ak tere lu bon day daal di xaram foofa kon fiqhul maqasid ak al nga xam ne lii su ma ko defee lan moo ci war a tegu lii su ma ko defee lu muy jur buntu fiq la boo xam ne borom xam-xam yii yëngu ci wàllu diine war nañ koo xàmmee lu ko moy moo xam ci seen fatwa la moo xam ci seen njàngale moo xam ci seen i yëngu ci biir lislaam mën nañoo indi fitna mën nañoo yàq loo xam ne si fekk dañoo bëggoon a defar far yàq yàq gu yées la fa nekkoon li ñu dund ci monde islamique bi tey nga xam ne lu bari ci ay yàq mi ngi am ba foo jëmati sax te doon ak jullit ñi jàpp ne yow moom ku dëng nga war a doon kuy taal nga war a doon kuy yàq ay nit a ko def rek maanaam ay doomu aadama ñoo jëf jëf jëf yoo xam ne jombul su fekkee wér na ne ay jullit ñoo ko def wala ay jullit a nga ca biir amaana jombul ne dañoo defoon ne dañuy defar mais lañ defoon ne dañuy defar lañ yàq ko yées nag tey lu mel noonu dafa war doon fiq bu tasaaroo ci biir askan wi ba jéego booy seqi nga ne waaw jéego bi li ciy juddoo waaye su fekkee li ciy juddoo moo gën la fa nekkoon alhamdulilah boobu jéego mënees na ko seqee su fekkee ñooyam sax dañuy wax taxawal maanaam dindi nga munkar dindi nga lu bon ba noppi bàyyiwaat fa lu bon lu toll ne la fa nekkoon dañ lay wax ne bàyyi fa la fa nekkoon bul lu dindi ndax amaana munkar boobee bu màggat la lee mu deel boppam waaye bi nga indi bu bees la nag day door a judd boo tudd màgg faf kon loolu bunt la mu mat a bàyyi xel fukkeel ba ak ñaar te moo ci mujj moo di al adlu fi l xukmi ala ahli l milali nekk ci biir diine jaaruñu ci yoon wi nga jaar wala nekk ci bitib diine atte ku ne kuy wax ci nit wala nga koy wax ci mbooloo dafa war a ànd ak maandu maandu gi mooy li nga wax doon loo xam ba noppi fi nga koy waxee njariñ lay jur te it ñi xam ne kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir lislaam te amaana xëy na ak réer nekk ci seen biir ñàkk xam yu mel noonu ñoom ñëpp yëmuñu de am na ci ñoo xam ne lu baax dong nga leen tax a jóg moom lañ bëgg te fuñ ko gisee nag jël ko amuñu ci lu ñuy ragal même ñi nekk ci bitti diine ji ñëpp yemuñu lay suu sawaa an ne ni ko am na ci ñoo xam ne si dëgg ñor na leen fuñ gisee dëgg dañ koy jël fuñ gisee ñoo xam ne ñu ngi leen di tooñ dañuy wax ne ñii ñu ngi leen di tooñ doonte bokkuñu ak ñoom diine kon nag globaliser atte ñépp ne ku nekkul fii baaxut déedéet loolu moom du doxinu ahlu sunna wal jamaa faaw ñu bàyyi xel ñi nga xam ne bokkuñu ak yow xalaat ñi nga xam ne bokkuñu ak yow diine xam ne am na ci seen biir ñoo xam ne dëgg leen tax a jóg moom la ñuy seet moom itam lañ bëgg te ko gisee fu nekk fas nañ ko yéenee jël kooku nga jëflanteeg ñoom jëflante bu jaaru te loolu na nga koy mën a defee mooy nga yor melokaan woo xam ne jagleeloo leen ko ñoom de waaye noona nga mel yow ndax loolu la lislaam wax mooy wa aqsitu fa inna allaha yuhibbu al-muqsitin maandu leen ndax borom bi tabaraka wa dafa bëgg ku maandu defe na daal tomb yooyu mooy li nga xam ne moo jàpp ni ci jataay bi di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal ni te jéggal ñu lépp loo xam ne lu ci rot la ci rëcc-rëcc euh, lépp lu ci nekk ci njariñ ak ay tuyaa bu mu boolee nu ko nun ñëpp di rafetlu déglu bi ak teewaay bi wa sallallahu wa sallam ala na muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain jazakumullahu mi yàlla fayal lu ko yiw mel na ni waxtaan wi mbetteel am na ci lu bare bare ci sama wàllu man parce que bu ñu daan faral di wax tahdiyaat muy dëkk yi fen yëpp ñu ngi jëm ci tahdiyaat ak xaale njéem ñu ngi jóge ci bis ndekete li gën a am solo ñu wax ko gën a bàyyi xel mooy ak tahdiyaat ak daaxiliyaat yi ñuy jóge ci suñu biir loolu nag ñu jotee waxtaan yi ba mu jeex dina teewal suñuy xalaat waxu waxtaan boobu la ana la axsha ala al islami min aadaai innama axsha ala al islami min adiyaati ñuy wóor lislaam te doonuloo ko dunduloo ko moo gën a ràññu kii xeex lislaam ay doon waaye suñu xel bi na ñëwaat itam ci la tax ñu ba naa daan wax en tant que kuy liggéey ci toolu l'islam mooy def naa naan aslih nafsaka wadlu xayraka wastain billah la war a njëkk ci ñun mooy defar suñu bopp saafara suñu bopp. Maodo Faye. teg suñu bopp. suñ ca paree wala ñu soog koo boole ak war koo xayrata jéem a seet keneen naka la ñuy jëflante moom ak fan lañ koy jaar nga delloo si boobu nag waaye yooyu yëpp nag mu la ko wastain billah ñu dimbali ko yàlla dellu ci yàlla ngir yi ñu bëgg yàlla mën ñu koo defal mel ne ni daal su ma doon jéem a tënk waxtaan wi ci ñaari waxin yooyu laa koy tënkee ci waxtaan ak asadiyaat al xaarijiya muy fexe yi ñuy samp yi ñuy si jullit yi yu rëy la waaye nañ gën a jiitoo suñu bopp ak li ñuy jógee suñu biir defal ko ba mu nekk su boobaa yàlla jëlal lu li ci waxtaan bi mu am solo euh, di ko ñaanal aussi ci ni mu tënkalee ci tàmbali mu xadimaat yooyu tànn su ko defee euh, jéem cee gàttalit ndax mu dëppoo ak waxtu wi ci niñ ko bëggee laaj bu njëkk bi daf ne nan la jaam bi di xame ne boroomam bëgg na ko ak lan mooy maana xadis bi wax ne kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi ba xadis ba jeex maanaam jaam bi nan lay xame ne yàlla bëgg na ko foofu bunt la boo xam ne dafa bokk ci tarxiisukaay yi itti ji wërta nekk foofu itti ji wërta nekk ci jaam bi ne waaw man su ma yàlla bëggee nu muy xamee ne bëgg na ma waaye waaye itti ji fi mu war a nekk mooy waaw lan mooy loo xam ne su ma ko defee yàlla bëgg ma lan mooy loo xam ne su ma ko defee yàlla jege na ne ku ko def mu bëgg la qul in kuntum tuhibbuna allah borom bi tabaraka wa taala yonent ko wax ne ko waxal nit ñi ne leen su ngeen ma toppee yàlla dana leen bëgg kon itti ju ji mooy topp digalu yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi tere ndax aw yoon la mu jëm fan ci ne yàlla bëgg da bëgg wasbiru inna allaha maa sabirin inna allaha yuhibu almuqsitin melokaan yi nga xam ne dafa nekk ci alquran yàlla ne bëgg na ko te ku ko def bëgg na la fexeel ba xam melokaan yooyu nga jëfandikoo ko soo ko jëfandikoo ba noppi nag bul yëkkati sa loxo mukk ne man bokk naa ci ñi yàlla bëgg parce que foofooy tarsiisukaay bi rafetal njort waaye nga jàq itam rafetal njot waaye nga jàq lu tax mooy nga rafet jot mooy yaa ngi góorgóorlu ci jëfe loo xam ne yàlla liggéey woon na ne ku ko def mu bëgg la waaye njàqare lu ko war a indi mooy jamono yu nekk tarxiis mën naa am ba keroon nit ci bàmmeelam tarxiis tax al imaam ahmad ibn hanbal ko waaw xel di dal maanaam nga wóolu ne yow mi mucc nga mu ne sama benn tànkum ndeyjoor bi bu duggoon àjjana sama xel du dal lu dul tànku càmmoñ bi da ko fekk kon jullit bi dafa am ñaari laaf yoo xam ne moom lay naawe jëm ci borom mooy laafum alxawf ak laafum alraja da ngay boole ragal ak am yaakaar yaar yooyu soo àndee rek nga dem ragal gi wërta not ba amatoo yaakaar parce que kon da ngay daal di naagu ci yërmande yàlla te yàlla nee na ku texee di rek mooy naagu ci yërmandeem waaye su yaakaar ji notee itam mën ngaa dem ba jàpp ne lépp baax na kon lu ma neex def saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam meluñu woon noonu même ñeñ ca woon yéen ci waa ajjana ngeen bokk ñooñu ci ñi dàqoon a yàlla ci lañ naa lu bari nit bu leen yonente bi ne woon yow de ajjana nga jëm kon dootul àdduna tukki la ma mooy kon lu ma neex def ndax ne jàpp nañ lu leen neex def ci kaw yaakaar joo xam ne dafa nañ ne bokk nañ ci waa ajjana ba noppi te yaakaar ne ci waa ajjana nga bokk kooku daa war a yokk ak laxasaay ndax nga def lu nuróog la waa ajjana di def saxaaba yi noonu lañ doon dégg eh, xadis bi nag bi wax ne kuntu samaahu alladi yusmiu yasmau bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi ba xadis ba jeex yonente bi borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci xadis qudsi boobu ne jaam bi day jaamoowuma lu gën li ma farataal ci moom waaye nag bu defee farataal yooyu ba noppi jaam bi day mën naa continuer di def ay naafilaam di ko def di ko def ba ma bëgg ko te su ma ko bëggee maay doon bët ba muy gisee maay doon nopp ba muy déggee maay doon tànk ba muy doxe luy loolu mooy daa wane màndarga bi ki mu bëgg ni mu demee mooy suy xool ci bëtam bi fa yàlla bëgg rek lay xool waaye lu yàlla bëggul du ko xool su bëtam ne woon tarfet xool loo xam ne lu xaraam la day gaaw ndax mu bës bët ba kooku mandargam ni kii yàlla bëgg na ko kon ki doon laaj ni muy xam ne yàlla bëgg na kon boobu ci la nopp bi du ca mës déglu loo xam ne lu yàlla xaraamal la du musique du wëy du caaxaan lépp loo xam ne toog na di ko déglu mu doon lu baaxul ah wa ida marru bi laxwi aradu suñ ko rombee dañ koy du muy won ko gannaaw gaaw jàll fa muy dox jëm seqib jéego jëm fi béréb boo ko seetloo ci lu baax la jëm moom daal bu waaxoo ca jàkka ja la jëm bu waaxoo ci jàngukaay bi wala jàngalewukaay ba ci la jëm bu waaxoo ci seeti mbokk la jëm bu waaxoo ca dem jàngi la jëm bu waaxoo ci dox diggante jullit yi defare seen diggante la jëm loolu rek moo koy tax seq jéego mooy warij lahu tànkam bi nga xam ne ci lay doxe su boobaa yàlla lay doon kon daal ab gisam ak bëtam ak tànkam ak xalaatam ak lépp lu muy def lu nekk na jàpp ne kooku niñ koy xam ne mooy boroomam tabaraka wa taala moo moom léppam jaamukatu yàlla la bu ne ci kaw suuf boo xam ne fu mu seqi jéego fu nekk ci boroomam li jëm loolu mooy maanaam xadis boobu jullit bi fan la war a mën a jaar ba tënku ci alquran ak sunna loolu moom mooy li jaadu ci jullit yépp ndax alquran mooy téere bi yàlla wàcce yebal ab yonent mu ñëw leeral ko ci ay waxam ak i jëfam ak ci ay jikkoom jullit bi war a mel noonu ko yonent bi moo doon alquran comme ni ko suñu yaay Aïcha waxe kaana xulquhul quran kon jullit bi noonu la war a jéem a mel fan mooy yoon wi mu war a jaar nag ba mel noonu ba ci jiitu mooy jàng ko alquran ak sunna des ko jàng door ko mën a jëfe ñaareel ba mooy yaru ci yaru ci buñ ne yaru ci mooy li ngay éducation ci boppam bokkul xam-xam li ngay jàng di ko xam ci ay masala tey kenn xamul lu mu tollu yu bari la waaye ndax jël nga ko benn par benn di ko jéem a pratiquer ba sa yar ba sa di ko tàmm jàng nga ne naafila guddi daal lu baax la waaye nattoo nañ la yow soo xasee ju liggéey ba tëdd daal bala ngaa yow rek dañu noodu fajar bala ngaa yow rek ñu noodu fajar loolu ab nattu la na am na Xasan euh, ibnu Sabaax dafa jënd benn jaam bu jigéen yóbbu ko këram jaam bi ñu tëdd ba nodd gu jëkk di bëgg a jot jaam bi jóg fëgg nit ñi di leen yee mu ne ko ndax dañoo nodd fajar sang bi ne ko dañoo nodd fajar mu ne ko déedéet waaye lii mooy waxtu jógub nit ñu baax mu ne ko ah nun de wax dëgg jóg des na mu daal mu dem moom ci boppam di julli ay julleem ñu nodd nodd gu jëkk mu jógaat fëggaat mu ne ko waaw lii lan la dafa jot mu ne déedéet waaye nag nodd nañ nodd bu njëkk de njëgg ma léegi ña ngay ña ngay takk seeni saabu di dem de maanaam ñu baax ñi ña ngay tàmbalee dem ñu jekki bañ nodd noddu fajar gi nag war a julli ji ñu door a jóg ñoom di jàpp ak a waaj nag ak julli seen ñaari rakka war a julli ji suba biñ xëyee mu ne leen lii da leen a dal tey wala nii rek ngeen di def ñu ne ko ah noonu de nii la def mu daal di awaat yoonam a dikk ci xasan ibnu sabaax ne ko yow kat bi'tani li qawmin suu wala li qawmi suu in yow da nga jaay ci nit ñoo xam ne ñu bon lañ sooy boo nga delloo si ma wala soo may jaay nga dellu nga jaay ma nit ñu baax mu ne ko luñ def mu ne ko ñooñu dañuy nodd fajar képp ñu door a yeew kon baax kon ah yëf yi kon mbir mi ko ci mënuñoo wax ne mën ngaa xëy benn bis yow mel noonu waaye nag mën ngaa yar sa bopp ndànk-ndànk nattoo nañ la daal soo tëddee doo doo jógaat kon góorgóorlu nga def sa naafile yi ngay def yépp bala ngaa tëdd wala nga góorgóorlu ba lu jiitu noddu fajar nga jiitoo ko trente minutes wala vingt minutes nga julli fa ñeenti rakka jàng fa tuuti alxuraan ñu noddu fajar nga dem julli ci soo ko defee da ngay yaru ci loolu ba da nga mujj man bala ñoo noddu noddu bu jëkk nga julli li nga soxlaa julli parce que bakkan bi liñ ko tàmmal rek loolu lay tàmm waaye bu dee da nga ko tàmmal nelaw rek bañ a asalaatu xëy na mu ne nga def bëri su ko defee loola lay tàmm moom itam kon moo tax ma ne jàng alquran ak sunna ak tarbiya sa bopp ci alquran ak sunna bokkul faw masala yi nga di ko jël benn par benn di ci yar sa bopp faw groupe yi ak xale yi ndaw ñi yar yi ñu leen di yar ñu jéem leen a yar ci loolu maanaam jéem a tàggatu ci xëy ba ngoon tuddoo kenn ci luy loo xeetu jiw ndax doon essayé goon nga ko man daal bisu tey bii ku mën a ñëw ci man di waxtaan itam ak koo fi mën a tudd duma la jéem a yaar bopp ci loolu bu ëllëgee nga ne danaa fas yéene ku ma bëgg a wax waxi diw beneen étape la ku ma bëgg a tuxalal waxi nit danaa la déet kooku kat jëw la beneen étape yooyu ci la nit ki dem di ci yar boppam di ci yar boppam ba mujj mu doon nag kuy dund alxuraan ak sunna kon njàng bi mën naa gaaw lool ndax da ngay benn place ñu jàngal la fi masala yu bari waaye nag pratique bi day benn par benn la ndànk ndànk de moo tax ñu daan takkoog boroomu xam-xam li daan tudde mu laasama borom xam-xam boo xam ne jëfe alxuraan ak sunna mu di la xool di la contrôler boo jëmee mu ne déet du noonu defal nii defal nii ñi di ko def ndànk ndànk ba keroog ngay doon koo xam ne dog nga yoon wi yàlla na ko yàlla jàppandal ci cër <coughs> bi mu ne nan lañuy def ba mucc ci fitne jigéen yonente bi sallallahu alayhi wa nee na bi mu fiy jógee bàyyiwul ci askan wi fitna ju a rëy fitna jigéen woykat ba nee na inna salaamata min hindin wa jaaratiha an bi waadin qurba waadiha nee mucc ci jigéen mooy bul jaxasoo moom loolu mooy wax yu bari yoo xam ne dañ koo yombal tey moo tax mucc jafe waaye nag yooni mucc yi moom mi ngi fi ba tey lépp loo xam ne xeeti caaxaan la xeeti pola xeeti kaf yu ëpp léeg-léeg muy am ci diggante ay góor ak ci jigéen yoo xam ne ay jàmbur lañ kaf yooyu lay indi ay ak ci alaaqaat yoo xam ne ëpp la ñu naan kii xaritam la ak day dem di ko seeteeg ñoo bokk daaw bi ñoo bokk nangam yooyu yëpp bunti seytaane la yoo xam ne la ciy juddoo kenn xam lu mu doon kon bunt la boo xam ne luñ la mën a wax des koo war a limité jigéen dana génn jigéen dana wax ñuy dégg waaye lenn la ci nekk nag dafa am yoonam boo xam ne noonu la ko lislaam santaane na sol col mi mu war a sol buy wax na wax wax joo xam ne fullawula wa qul na qawlan maarufan la borom bi wax wala yaxdaxna bil qawli fa yatma jigéen joo xam ne ab jàmbur la ci yow ngeen di weccante ay sms ay téléphone ay waxante wax yoo xam ne kaf kii nag yow de sa sant wi nangam ci yooyu lay tàmbalee bu ji jéggi ko nag ba àgg ci yeneen kon fiiru seytaane la waaye lu bari nag nit ñi ñoo ci dugal seen bopp faaw ñu jéem a wattandiku bunt boobu ndax kat ci yàq la bokk de ndax am na ak ñaan guy musal nit ki ci kiñaan ah ñaan bi gi da xamal weesuwul ñaan yàlla mu musal la ci kiñaan ndax ñaan suñu borom tabaraka wa taala mooy la nga bëgg a mucc nga ñaan ko ne ko musal ma ci waaye nag ñaan boo xam ne dañ ko di mu nekk ci alxuraan wala sunna ñu ne lii boo ko waxee utoo iñaan déedéet loolu loolu moom amul kon faawu daal ngay tàllal say loxo di ñaan sa borom tabaraka wa taala mu musal na ci loolu waaye nag nga jéem cee a def ay effort yawit nag ki nga gis mu am dara nga ñaanal ko yàlla mu dolli ko kii lii ni ma ko gisee lii ko yàlla jox yàlla na ko yàlla dolli su fekkee ne lu gën ci moom la yàlla na ko ko yàlla tàggatal mu nekk ci topp yàlla su fekkee ne lu mu yor la yàlla na ko ci yàlla musal ci cat ci mbubbam mi ma gis mu sol ko tey de yàlla na ko yàlla fegal cat macha allah yu mel noonu boo ko waxee nit ki yéene ko lu baax ak ñaanal ko lu baax sab xol du du tàng jëm ci moom loolu day fay day fay bunt boobu sawaraw tàngooru xol woo wi ngay xool ca la yàlla defal keneen nga di ko ñaanal yàlla mu barkeelal ko ko loola day tax sawaraw tàngooru xol woowu fay su fekkee ma nga fa woon kon yéene nit ñi jàmm bokk na ci yi gën a fonk ki ñaan waaye nag ñaan bi lu baax la ndax su borom tabaraka wa taala euh, ku ñaan lu baax mën na laa defal tawfiq may la ko ndax dagan na ci ab jullit mu tukki ci réew yoo xam ne du réewu jullit ngir ngir liggéey yi ah mu koy dagan na de maanaam lu baax la nit ki am béréb boo xam ne mën na faa dem liggéey daan fa teraanga am bu jëf leen jullit ak kudul jullit dañuy jëf leen ci ci àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna am na mbubbam moo xam ne ci ab juif lañ ko tayle mbubbam yonente bi sallallahu alayhi wa moo xam ne dañ koo tayle jël fa xaalis bàyyi ko fa sallallahu alayhi wa kon doon nañ jëf leen ci wàllu àdduna ak alal ak ci aju waaye nag nii tukki yi xew nag yu ma ta bàyyi xel la mooy toog ba mu yàgg nga jàpp ne réew daal kenn mën a tufee baax kenn mën a tufee am itam lu baax faw nga tukki ca bitim réew door a koom soo ko deful doo ko am loolu njuumte la crise bi ci àdduna fépp la nekk coono yi fépp a sonn ñenn ñu ci nekk boo xoolee fañ nekkoon bëkk démb ak fiñ nekk tey yàlla xam ne am na réewum réewum tubaab moo xam ne dem nañ fa dafa defub conférence ambassade bu Sénégal ba na nit ñi doon ràññee fii ci Sénégal di dem foofa ñooñu waa réew ma noonu la ñuy ràññee pour ñëw Sénégal ñoom itam wut si fi ay suuf ak ay mbay ak yu mel noonu di wut ay visa pour ñëw fii yooyu ngir bëgg fee liggéey si kon xam nga ne yëf yi neexatul su fekkee ñooñu ñooy ràññ ci ambassade bu Sénégal di wut visa pour ñëw fii pour liggéey si xam nga ne kon euh, yëf yi euh, demewul noonu waaye jóg jékki-jékki mab ba dugg ci ay gaal di dem fenn fu rek nga dugg fa xeeti coono yu mel noonu ñii di faatu ci yoon mel ni ku jëm ci loo xam ne euh, lu munta ñàkk la mbir yi moom demewul noonu te ñu ci bari ñu dem foofu ba àgg dañoo mujj dugg ci gudd goo xam ne man gisuñu luñ def ba noppi mënuñ ci ñëw dellu si am na sama benn mbokk nee na ma moom day liggéey sax ci wàllu ay ay daayira ak yooyu nga bu weer wi dee day wër nit di leen laaj nee na dafa dugg ci lu mat ñetti kër yoo xam ne ñooñu ci ñu dàkkoon a joxe ci réew moomu ci lañ bokk nee na fenn fu ci nekk bi demee daa fekk ñu taal ay sondeel coupé ñu coupé leen courant boobu te mënuñu koo fay ñu taal ay sondeel nee na dama leen a duusa laaj sax li taxoon ma jóg ma ko waaw mu ngoog léegi nag koo xam ne boo demee ba foofa ba racc ba toog ba noppi yor say kayit ak yu mel noonu loolu mën na laa dal kon wax dëgg yàlla foofa nag doonatul ab jëmukaay waaye nag ñu xam ne euh, responsabilité bi partagé la maanaam kenn ku ne am nga ci sa wàll ndaw li na jéem a góorgóorlu na jéem a tàggatu na jéem a def formation na jéem am métier waaye état it am na ci responsabilité ci ubbil ndaw ñi ay tàggatukaay ndax lit ci daa war a am métier ñëpp état mënu leen a jël ñuy liggéey waaye nag ñëpp war nañoo xarañe métier ba mën a dem liggéey beneen bi ci des mooy responsabilité bu mag a mag boo xam ne ñi yàlla jox alal te nekk ci réew mi am nañ ko fii mu nekk boo demee ci réew tubaab yooyu gars yi di daw di dem ay boroomi alal ñoo ubbi àll bi def fa tool def fa seen i usine def fa seen i dikkee ñëw ñu jël leen di leen liggéey loolu di leen fay weer pourtant ay boroomi alal yu mag seen alal denc ko ci banque bi rek dem toog ñooñu nañ dem ci àll bi xotti ko wut ay tool ndaw ñi ñuy liggéey foofu ubbi ay usine ñëw liggéey boobu état bi defal leen ay jàpp ndal ñoom tam loolu jàpp ni yu mel noonu daal su amee ci la ñuy tabax am réew économie ci lay mën a tabax taxawe am réew naat maanaam réew mi li koy naata bu dee mbay fii lañ koy bayee bu dee industrie fii lañ koy liggéeyee adduna bi dox bépp ci noonu la doxee fii ne foo dem àdduna ma ngay dox di dem ci diggante mbay ak càmm ak industrie ak yoo xam ne ci biir réew ma lañ koy liggéeyee yooyu boroom borom yi réew mi ak boroom man-man yi war nañoo liggéey ci loolu ndaw ñi def formation liggéey ci biir loolu réew mi naat njub gi tasaaroo ñu dem ñu mujj ci gaaleeg faatu gi ñu faatu ci yoon bi yal na ko yàlla jàpp na defe naa euh, bu mujj bi dana xaw a génn sax thème bi tuuti waaye ginnaaw bu am solo la rek ñu mujje ko daf ne jigéen ji moom nan lay tànnee boroom kër jigéen ji nan lay tànne borom kër euh, ku góor ki ni mu war a tànne boroom kër rek ni mu war a tànne soxna rek noonu la ko jigéen ki war a tànne borom kër moo di l'islam dafa joxe ay critères ay melokaan yoo xam ne yii yow mii wut soxna kii xel ba am ko yow mii wut boroom kër fexeel ba kii nga am ko loolu la l'islam joxe yow ku jigéen kii wuti borom kër borom bi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su fekkee am na ku ñëw koo xam ne am na jikko am na diine am na jikko am na diine nee na may leen ko soxna ida ataakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawijuhu su fekkee nit ki ñëw na daal am jikko am diine may leen ko soxna waaye nag yow mi wuti soxna am na luñ la wax maanaam bu bul ñëw fi béréb rek ne man kat am naa jikko am naa diine kon par force di maa war a may soxna déet am na lu ñu la wax nga gànnaayoo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga wut nag ba am loo mën a yore soxna ba noppi nee na yaa ma'shar shabaab yi yéen mboolem ndaw ñi képp koo xam ne ci yéen mën naa denc soxna maanaam am na lu mu ko yore foofu lay wax man istataa jooju am loo ko yore la nee na kooku demal takki soxna yow mi amut loo ko yor man lam yastati ki amut lu mu ko yore fa alayhi bi sawm yow mi ëmb la ko yow deel woor nga muñe ko noonu mu fegal la sa bànneex fa innahu lahu wijaan lu tax ma firee ko ne am loo ko yore la mooy ñi am na nit ñoo xam ne damay dégg ñu koy firee ne man istataa minkumul baaxata mooy ku am kàttanug sëy maanaam koo xam ne góor la daal déedéet du loolu su fekkoon ne loolu la kay exception bi man lam yastati ji du am parce que ki ko mënul kooku koo mënta sëy li ma lu tax muy woor kooku kay kenn du ko wóorloo bu fekkee ne amul kàttanu sëy kon fa alayhi bi saw mu ji day daal di yàqu waaye man istataa minkum albaata falyatazawaj ki nga xam ne charte yi yor doom aadama ji jigéen laaj am na ko na dem wuti soxna ki amut lool nag na dem liggéey tey dimbali koo koor ba keru muy am kon yow mi ñëw yor loo xam ne mën nga cee yor soxna ak lu mu néew néew nag waaye ginnaaw mën naa yor doomu aadama daal ab départ la su ñëwee indaale as am amam indaale ngorom ak diineem ak jikkoom kooku may leen ko soxla loolu mooy orientation bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen bi moom yooyu la war a xool kii daal mën na maa yor te itam borom jikko la kon dana ma yërëm borom diine la kon dana ragal yàlla kon man kii laa bëgg waaye yeneen yi nag nga xam ne nit ñee ko tegal seen bopp askanoo fu mu bokk ak nangam la bokk yooyu yëpp nit ñi ñoo ko tëral seen bopp loo xam ne lu sharia dëgëral la yàlla na borom bi tabaraka wa taala def tawfiq ci jàppandal lépp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah